baabun li ab bunt la fil buyuuhi ci xeeti njaay yi wamaak la nga xam ne chaque la meloonte naag al buyuuha xeeti jaay yi dina bunt bi daa bëgg a jëm ci mbirum njaay ak lépp lu xeetoo njaay moom nag faaw bunt bu gudd lay doon ci téere boo ko fekk daanaka te bari ay mbir wa axalla daganal na allahu yàlla albayha jaay wa xarama te mu araamal arriba riba nee na suñu borom bàyyiwul ku jaay ak jënd xanaa kay daganal na ko riba kay la aaye mu am ci njaay ma wa kaana nekkoon na nag ribal jaahiliyati riba yi réer ña maanaam ñi nekkoon lislaam fi diyoon di nekk ci bor ya ndax imma an yaqdiyahu benn mu fay ko wa im- wa imma an yurbiya wala benn mu wokkal loxo ñal ko fii ci bor ba mais nag njëkk njëkk lislaam nag moom xeeti leblante yi riba daana ci am lool ndax dañ daan def bu amee leen nit bor ba fay ga jot bu taxaw la ne la benn nga fay ma mbaa mu toppalal la delu bi te yokk bor bi ma ne tey nga waroon koo fay téeméer mu ne la damay fay téeméer tey mbaa mu toppalal la delu bi ba ñu tegaat ci weer mbaa genn wàllu weer te nga def ko téeméer ñaar fukk suñu àggaatee ci delu boobu te mën laa fay itam mu topp mu defat noonaati ne la naa la toppal delu bi te nga yokkal ma ci nangamati nga xam ne mujj léegi mën nga ko ameel benn téeméer mu dem ba mu nekk ay junni junni loolu suñu jamono ji mën nga ko ameel fukki junni mu dem ba million mbaa nangam million loola ci yokk lépp rek luñ ca tegee xam ne riba la waaw ndax saa yoo ko lebalee mu war laa fay te mënta fay rek toppal ga mënta ñàkk toppal ga moom yoon a koy waral doo ko doo ko mën a ñàkk toppal dele ba te du la ci yokkal dara ci bor ba wa min riba bokk na ci riba fii xayri nasiati ci lu lu yeexe bay xul fiddati jaay xaalis bil fiddati jëndi xaalis yelan biye di mbir mu loxo loxo mu tafaadul mu aji ëppalante neen lu ñu wax weccet ni ki wecc ko xaalis xaalis yoon aajowoo ko waaye day aajowoo ñu yemoo képp li nga koy jox ak li mu lay jox yom képp tam nekk loxo loxo waaw mu ne nag bu fekkee loxo loxo la waaye daa ëppante ëppante boobu moo ko yàq ni ki bu dee xaalis CFA bi nga xam ne xës nañ xam ni mu demee moom boo ko wecc ko di ko jox xaalis mu lay jox xaalis moom daa war a yemoo képp tam loxo loxo fi saa sax waaye bu ëppante dara rek muy riba bu dee ñaari xaalis yu bokkul nag mel ne euro bi ñu indi fii di ko wecc ko ci biir moom duñ mën a yemoo waaye nag bu dee ñaari yemoo moom daa war a yemoo ci biir boo ko dee wecc moom naka noonu bu fekkoon tëgg wurus yi itam ak xaalis nga xam ne da ngeen bëgg a weccee morso yu xaalis ci tëgg bi wala ci morso yu wurus ci ni ngeen koy tëggee ci atelier ba ba tey moom it daa war a yem rek xaalis bi gën a rafet bee wala bi gën a ñaaw du tax mu ëppante faaw rek bu ñu dee weccee xaalis xaalis daa war a yem képp wa kazalika naka noonu ak dahabu jaay wurus ak dahabu jënde wurus dañ koy wax jaay rek waaye mooy weccee maanaam ba tey day wecc ko wurus ci wurus dañu war a yemoo doon te wurus bee moo gën a rafet bële itam du tee dañu war a yem rek moom tam nekk loxo loxo fi saa saa moom lay bëgg a takk sax ci wax ju fasu wax ju gën a yomb a takk daal maanaam ne walaa yajuuzu suñu dagan fiddatum jaay xaalis bi fiddatum jëndi xaalis wala dahabun du caageen wurus bi dahabin jëndi wurus illa mislan bi mislin dara muy kem ci am kem yadan bi yadin tey loxoog loxo muy noonu ne booy wecc ko xaalis ak xaalis wala ngay wecc ko wurus ak wurus daa war a nekk loxo loxo man nga teg nga jox ko fi saasa mu jox la fi saasa te ñoomoo dong ñoom ñaar waaye bu dee xaalis ak xaalis bu ci kenn ëppalantee lam jox moroom mu ëpp la ko koy jox rek lam koy prix bala bu fekkee ne itam kee da koy jox kee xaar ba ci kanam mu war ko jox itam loxo loxo fi saasa yeexe boobu riba la yeexe boobu riba la bu dee wecc ko wurus ak wurus noonu bu ëppantee ëppante ba riba la bu yeexe amee ni ki kii joxe kii xaar ba ci kanam mu door a joxe riba lay doon wal fiddatu jaay xaalis bi dahab bi jëndi wurus riba riba lay doon illaa yadan bi yadin mbari mbir muy loxo loxo nee na boo dee wecc ko xaalis ak wurus moom daañu nangu ëppante ndax xam nga wurus daa gën a foor kon kay joxe xaalis la mu joxe waaye mu ëpp la koy joxe wurus di joxe loolu mu ayut waaye yeexe ga moo ci aay ni ki kii jox ko kii jox ko bu ngoonee kii jox ko léegi ci bëccëg kii jox ko bu ngoonee wala daal lu diggante bu yeexe rek bu ñu ko yeexee rek muy nekk loxo loxo rek loolu moo ci aay moo ci nekk riba wa taxaamu ñam wa minal xuboobi ci xeeti pepp yi wal xutuneeti ak giiri sër yi wa sibxe ak nuyu ñoom min naa ci lépp loo xam ne yut daxaru def na ko denc min xuutin mu nekk ab dund aw idaamin wala randaayi randaay mooy lu ñuy safale togg gi maanaam lu ñuy defare togg gi mel ne diw ñor ak xorom ak soble ak bineegar ak lu mel ne poobar ak kaane yooyu mooy randaay yooyu yëpp laa yu ci suuf dagan al jëm su jaay aw xeet minoo ci moom bi jëm si jëndi aw xeetam illa mislan bi mislin dara mooy kem ci am kem yedan bi yedin loxoog loxo daa bëgg wax ne bu fekkee da nga koy jox ñam mu lay jox ñam moo xam xeetu pepp la moo xam giwu suuf la ak lépp li nga denc di ko dundee rek moo xam ne ci bopp la ñu dundee moo xam ne ñu koy defaree togg ba da nga mënees na koo denc di ko dundee rek mbaa ñu koy defaree togg rek suñu ko dee weccee te nga xam ne wenn xeet la dañ ko tudd jaay rek waaye mu weccee benn lañ boo koy jox mu lay jox loo xam ne wenn xeet waa kon day araam mu ëppante bu ëppante rek moom riba lay doon waaw te aajo lu loxoog loxo itam ba ñu yeex ba kee joxee te kee joxewul fa saasu yeexe googu riba lay doon moo tax mu ne mu teg ci walaa joosul lagan fii ci moom taxirul ak yeexe bu xasee xam ne wenn xeet la moom fekk tey jii bu fekkoon ne dafa am dugub ju suuna ji rafet ak dugub joo xam te ko rafet ngeen bëgg koo jaayante itam di aajo mu yemoo rek du nangu ëppante te itam mu nekk loxo waxo nga jox ko fi saasa mu jox la fi saasa bu doon xeetu soble noonu itam wala xeetu diwu ñor wala xeetu bineegar yooyu nga xam daal mënees na koo denc di ko dundee mbaa muy ëpp dund mbaa ñu koy defare togg ci boppam te nañ koo denc te aajo mu nekk loxo ak loxo te tolloo képp yem ci da koy baamu ko baamu war rek nag walaay juus dagan taxaamin jaay aw ñam bi taxaamin jëndi aw ñam ila ajalin jëm ci àpp kaana moo xam nekk la min jëm si di bokk ci aw xeetam aw min xilaaf yi wala mu bokk ci lu wuteeg moom kaana moo xam nekk na min maa di loo xam ne yët daxaru def na ko mën a denc aw laa yët daxaru wala defu ko denc maanaam jaay ñam jëndi ñam moom dana ngi yeexe mukk moo xam wenn xeet yi moo xam ñaari xeet yi bokkut la moo xam mënees na koo denc di ko dunde moo xam mënees koo denc di ko dunde yeexe gi moom du dagan da nga koy jox fi saasa mu jox la fi saasa bu fee bu dee wenn xeet wa képp yam ci itam te mën koo denc di ko dunde ëppante gi du dagan waaye bu yàlla dogalee mënees koo denc di ko dunde mën naa ëppante bu yàlla dogalee mu yaay xeet yi bokkut tam mën naa ëppante waaw waaw yeexe gi moom du dagan benn yoon loolu am sooy ba jàpp ko sooy ba jàpp ne jaay ñoom jënd ñoom moom wala nga koy jaay ñam la lam lay fay ñam la yeexe moom du ci am bu ci yeexe amee rek muy riba bu yàlla dogalee mu wenn xeet te nañ ko te nañ koo denc di ko dund it noonu la du nangu ëppante boole ca xanaa boo tegee fee yeexe bi du nangu itam ëppante waaye nag bu dee yaari xeet yu bokkut wala muy loo xam ne kenn mënu koo denc di ko dund dañ koy jëfandikoo ba mu yàqu su boobaa moom du ngeen ëppante yeexe gi na moom dagan benn yoon loolu koy baamal ko baamal rek nag wala boo sa ayit bil fawaaki ci furu yi firme it baatuwaay waaye payteef lañ koy wax ci wolof xeet doom yi mel ne pom ak orange ak mango ak mandarin yooyu mooy fawaak yi mooy firme yi wala buquur yi ak lujum yi wa maag la nga xam ne laa yët daxaru def ko mën a denc moom awit mu tafa dilal mu ëj ëppante wa in kaana ak doonte nekkoon na min jinsin tukkee ci xeet waaxit bu ween waaxit mu diween yeneen bi yedin waaye nag mu loxoog loxo boole ca nee na lépp loo xam ne su ko denc di ko dundee mën a xeeti film yi ak xeeti lujum yi ay demee noonu moom nangu na ngeen weccee ko ba noppi ëppante donte wenn xeet yi la itam nga koy jox mango mu lay jox mango mën na ëppante koy jox mandarin mu lay jox mandarin mën na ëppante koy jox lujum mu lay jox lujum mën na ëppante donte wenn xeet wala itam waaye na nekk yeneen béy rek yeexe moom bu ci amee rek mu riba walaay jëm su du dagan ab tafaadul ëppalante fil jëm si ci xeet wa alwaaxid di wenn fii maa ci la nga xam ne yit doxadu def na ko mën a denc minal fawaakih ci firi yi alyaabisati ajow wa saairil idaami ak mboolem randaay wa taxaami ak mboolem ñam wa sharaabi ak naan waaw nee na yëpp ñoom ñu mën a denc di ko dund rek bu dee wenn xeet yu ngeen di weccente moom ko tudde jaayante waaye moo weccee su boobaa du nangu ëppante da cee bool na moom firi yi firi yi échec maanaam xeet yi firi yi échec mel ne reseñ xam nga am na ci bu bu ñëwal bu ñëwal ñu koy def ci buñ koy togg laax yooyu moom boole na ko ci nga xam dinañ ko ëppalante ba ñu ko dee jaayante ba ñu ko dee weccee waaye am ñu ne moom nangu na ëppante nañ xeet firi yooyu bi ñu ko woolee ba ñëw bi ñu koy jaayante du leen nangu na ëppante moom moo wax loolu rek waaye nañ nangu na ëppante waaye lépp lu ñu defaree ñam te mën koo denc rek ni ki diw ñor ak yooyu xeeti ñam yi nga xam yépp ak xeet naam yi xeet naam yi mel ne mel ne lem ak bineegar su ngeen koy weccee dañ ko tudde jaayante waaye moo weccee rek te aajo ñu yamante képp ñooy ñaar yeex gi mu dagan benn yoon waaye ndegam mas na koo denc di ko dundee itam tam wenn xeet boole ci day aajowoo mu yemoo képp boole ci bu dee yaari xeet yi bokk nag na nga ma ëppante moom ilal maa nga ndox mu ñuul waxadahoo moom rek ndox mu ñuul rek mu ndoxum kese mi moom mën nga koo jaay ñu fayalaw ñam te du doon fi saasay saasa ndox mu ñuul ba tey nangu na ëppante rek nga jox nga koy jox ndoxum taw mu lay jox ndoxum robinet mi rek bu te du tee mu nangu ëppante waaye na nekk na loxo loxo wa maa loo xam ne ixtalafa du wuti na ajnaasu ay xeetam min daalika ci loolee wa min saairi xubuubi ak ci mboolem xeeti bépp yi wa simaay ak meññeet yi wa taxaani ak nen fala ba sa ayit bi tafaadul ci ëppalante fii ci moom yadan bi yadin mbir mi loxo loxo te baamoo ko baamuwaat rek dane bu fekkee yaari xeet yu bokkul la moo xam xeetu pepp la moo xam xeetu meññ la moo xam xeetu ñam la bu dee yaari xeet yu bokkul rek moom donte mees na koo denc ci ko dundee sax waaye yaari xeet yu bokkul la moom nangu na ëppante waaw waaw na yeexe ñam moo ci dul lagan kon jàppal ne bu dee wenn xeet yi moom te nañ koo denc ci ko dundee dana ñu ëppante dana ñu yeexe ndax yeexe gi moom daan benn yoon waaye bu dee yaari xeet yu bokkul na mën a ëppante bu dee loo xam ne kenn moo koo denc ci ko dundee ba tey na mën a ëppante waaw léegi mooy teqale tey baam rek nag wala yu jootul dagal ak tafaadul ëppalante fil jëm si ci xeet wa alwaahid wa day wenn mënu ci moom illaa fil qudari ndara ci lujum yi wal fawaaki ak firiw yi gis nga noonu ko baam waate nee na bu dee wenn xeet wa te mën koo denc di ko dundee moom dina nga ëppante waaye bu dee xeet lujum baa firiw yi moom na nga ëppante donte wenn xeet wa la itam waaye yéexe gam lu dagal benn yoon ndegam li ñu wax ne nag bu dee wenn xeet mu nangu ëppante ñu koy denc di ko dunde bu dee yaari xeet yi bokkul mu nangu ëppante maanaam bu dee yaari xeet yi bokk du ko nangu kon dana aajowo mu xamal la xeet yi bokk yu bokkut loolu la tàmbalee wax wal xamaxu bele wa chahiw ak lor wa suut ak suut ka jin sin mu ne xeet waaxit mu di woon fii maa ci la nga xam ne yaxi lu dana dagan min hu ci moom wa yaxarum ak la ci araam nee na pep mi ñu wax bele ak mi ñu wax lorju ak mu wax suutu dañ ko jàppe wenn xeet nga xam ne bañ ko dee jaayante moom bañ ko dee weccante dana xel di ko jaayante day aajoo mu yem képp waaye dina lu ëppante ak wenn xeet lañ ko jàppe wa zobi bu reseñ kulluhu léppam sin fu nu wenn xeet la reseñ dafa bari qualité ji fañ koy bayee waaye fi mu toll nii dañ ko jàppe wenn benn benn xeet reseñ boo ko mën di jox ak bu mu la mën di jox dafa war a yemoo rek waaye dina lu ëppante wa tamru tàndarma kulluhu léppam sin fu nu wenn xeet la tàmbal na ni mu bare ay xeet yëmu na maanaam ni mu bare ay wérgoo ci fañ koy bayee ak ni ñu ëppante njëkk sax waaye fi mu toll nii bu ñu ko dee weccee rek maanaam bu ñu ko dee jaayante nga jox tàmbal ma jox tàmbal ma day yem rek ndax wenn xeet lañ ko jàppee wal xutuniyatu giiri sa bi asnaafun ay xeet la ñu fil bi waxi ci jaay yéen a giiri sa bi bu dee ci jaay dañ koy jàpp ay xeet kon nu mën a ëppante boo koy jox giiri sëb gi mu lay jox beneen sëb mën naa ëppante ndax jàpp lañ ko wenn xeet moo tax waxta la fa woote na fiixaa ci ñoom xawlu Maalik waxu Maalik nee na bu dee ci mbirum njaay moom ci giisa bi Maalik wax na ci yaari wax dañoo nettalee ci moom mu ne ay xeet lañu say ba jàpp jooju wax mooy jumla wax léegi kon doon nangu ëppante benn wax ba ne benn xeet lañu kon doon nangu ëppante waaye jàppal rek wax bi mu la wax léegi bi mu la njëkk a nettalee mooy ay xeet lañu te nangu nañu ëppante bu ñu ko dee jaayante wala waxta la fa wute wut na xawlu fa waxam fi zakaati ci asaka ne innaha naka ñoom sinfun aw xeet lañ waaxit na yoon nee na bu Maalik di wax ci giiri sa bi ci asaka nag moom benn wax la wax ñoo ñoom ñëpp benn xeet lañ mooy kon daañu leen boole ci asaka boo doon sëb ñee bay sëb ñee bay sëb ñee dañ koy boole dañuy seet ba xam lu nekk la nga ci am dañ ko boole tam nag juróom benn bari war asaka war la kon jàppal ne bu dee ci asaka dañ koy jàppe wenn xeet bu dee ci jaayante ñu jàppee ko ay xeet nga xam ne nangu ëppante wala moo teqale woon wuluhu mu dawaatil arbahi yàpp yaram ñeenti tànk yi minal anhaami ci juri kër yi wala wax si am waay àll yi sinful wan xeet la maanaam mboolem ñu amee ñeenti tànk dañ ko jàppe wan xeet waaw moo xam ne ñu dëkk ci kër gi la moo xam ne ñu yóbbu ci àll ba la bu fekkee ne ndawal gëleem jafe na tey nga ko doon jox nga ndawal gëleem mu lay jox gol nag mu yomb fii itam daa war a yomb rek du ma nga ëppante boo ko doon jox ndawal xaram mbaa béy mu lay jox gol nag gi nga xam ne moom mu xaram béy gën a baax it du tee daa war a yomb rek léegi boo doon jox yàpp kéwél te gis nga ne kéwél ni mu jafee moos xam nga ko mu lay jox yàpp kéwél yow nga di ko jox yàpp nag fii itam daa war a yem rek ndax moom di nga mbaram ñeen tàng la benn xel lañ ko jàppee wala xoomu tayru yàpp njanaaw yi kulli yi léppam sinpun woon xel la maanaam mboole ñu naaw lañ ko jàppee woon xeet waaw mboole ñu naaw rek woon xeet lañ ko jàppee fi mu toll nii boo ko doon jox yàpp naat te xam nga naat moom moo gën a xaw a tax koo jafe lool bu lay jox yàpp kaabuux te gisul kaabuux ni mu jafe daa war a yomb rek dama moom xas na nekk xëy yàpp nga naan moom wan xëy lañ ko jàppee wala xaw mu dawaa bil maa yi yàpp daa boo ndox yi ku lihaa léppam ku lihaa mboole seen seen ko wan xeet la mboole li ñu nappe ci géej di ko jëfandikoo rek ni ki jën yi xam nga jën bari na xeet da wute njëkk waaye du tee dañ ko dee wàccee xeet da wute njëkk waaye du tee dañ ko dee wàccee moom daa war a yem rek ndax wan xeet lañ ko jàppee wanaa loo xam ne tawal la da juddoona min lu xoomul jiw si ci yàpp xeet alwaahid yu yenn min suxmin ci nabban nabban mooy graisse foofu moom kalaxane yi ni ngeen ay yàppam bu la nee nàng woon xeet la xamee ne kon la bàyyi ko ci yàppoo mel ni graisse ga benn xeet lañ ko jàppee ma nga tey bu ñu nee mboolem borom ñeenti tànk yi wenn xeet lañ ko jàppee xam ne kon boo ko doon jox graisse u xar ma lay jox graisse graisse u gëléem it donte gëléem jafe ni fii nga am graisse am it moom daa war a yem rek ndax wenn xeet lañ ko jàppee wa albaanu dalika sinfi sooy woowale xeet wa jubluhu ak lëralam lëralam mooy farmaasam wa samnuhu ak diwu ñoram diwu ñoram mooy lu mel ne booram mbaa diwu ñoram gi nga xam ban lañ sinfu woon xeet la et bu ñu nee nanga woon xeet la xamal ne kon soow mi woon xeet lay doon maanaam bu ñu nee mboolem borom ñeen tànk woon xeet lañ xamal ne boo ko doon jox soowam xar wala moom béy moom mu lay jox moom nag mbaa moom gëlee mi daa war a yem rek ndax woon xeet lañ ko jotee boo jëmee ci seen bër wala seen fromage it nan lay mel boo ko doon jox fromage su xar mu lay jox goon nag mbaa bu gëleem daa war a yem boo ko doon jox diw ñor wala bër bu bàyyi ko ci xar mbaa bëy mu lay jox moom bàyyi ko ci nag mbaa gëleem daa war a yem rek ndax loolu woon xel lañ ko jàppee wa mel ni bu taaxa ku jënd taxaaman aw ñam falaaw jooy suñu dagan bay xoo ak jaayaatam xabla an yastaw fi yaxoo njëkk mu koy ñëpp njëkk mu koy ñëpp mooy njëkk mu cay jot isa kaana dem nekk na shiraahu jëndam nga zalika loolee xalaa wees nañ ci kaw peese aw kayli wala nat aw xarit wala ab lim yéen a boo jëndee fi aw ñam ñu war koo peese jox la waaye joxaguñ la ko peese guñ ko jox la mbaa ñu war ko natt jox la natt guñ ko jox la mbaa ñu war ko wàññi nag ay nen wala xaal jox la te joxaguñ la ko doo ko mën a jaayaat te jotoo ci mais bu fekkee bi nga ñëw jaar jaarul nga ci bitig bi jaar nga ci bitig bi ne ko jaay ma fukki kilo ceeb ba fay ko ba noppi xam nga kon am na fukki kilo ceeb waaye peese ko jox la ko doo mën a ñëw fi jaayaat ko. ba muy natt noonu bu doon ay ay nen nga jaay xam mu jaay la fukki nen ba nga fay ko baagal waaye jotagoo ci doon ñëw fi jaayaat ko natti noonu la bi xilaafil jusaa bi ci wutee kub jal bu fekkee ab jal mooy loo xam ne kenn pesé wu ko kenn nattu ko kenn ñëw ko dañu nga romb ci biti bi rek ñu jal kafe wala ñu jal ceeb wala ñu jal pepp ñu jaay la jal ba rek noonu kon mën ngaa dikk ki jaayaat ko te moom jot ci jële boobu wa kazalika naka noonu kullu taxaamin lépp ñam aw idaamin wala randaay aw sharaabin wala naan yooyu lépp lu xeetu ñam yoo jënd te jotagoo ci wala lépp lu ñuy defaree ñam wala ñuy defaree togg nga jënd ko te jotagoo ci mbaa xeetu naan dina benegar wala lem nga jënd ko te jotagoo ci doo ko mën a jaayaat faaw nga xaar jot ci njëkk war ko mën a jaayaat ilal maa andara ndox mu ñuul wax dafa moom rek ndox mu ñuul moom may nañ nga jënd ko fee jotagoo ci dal ko jaayaat mel na nga romb fekk kuy kuy jaay bërigo wala kuy root di jaay nga ne ko andi na bërigo daal di koy fay te andee googu nga ñëw fi jaayaat ko xaat loolu moom nanguñ ko am wamaa loo xam ne yokkoo mën a nekk minal addwiyati di bokk ci xeeti saafara yi wa zaraar yi ak jiw ya allati ya nga xam ne laa yu tasaru deful nale min xaa ci ñoom saytun diw falaa yu doxalu du dugg daalika loolee fii maa ci la nga xam ne yaxarumu dana araam min bay xi taxaama ci jaay ñam wa xabla xablihi ci njëkk nga bam nga awit tafaadul wala ëppalante ga fil jinsi ca xeet wa alwaahid wa yenn min wu ci moom daa wax ne lépp loo xam ne dañ koy garaboo rek mbaa ñu koy def aw jiwu te amul luñ cay sagale amul diw buñ cay sagale des koy def aw jiwu waaye di ko jiwu xaal jiwu xaal daa mel ne kenn du ko di sagal di ci génne diw kon lépp lu ñu garaboo rek mbaa ñu koy def aw jiwu te jiwu amul diw buñ cay sagale rek nee na moom mën nga koo jaay te jotagoo ci waaw mën nga koo jënd fee ñëw jaayal ko te jotagoo ci boo ko doon wàccante kenn itam dana nangu ëppante loolu wax na ko ci gannaaw ci ëppante gi moom du ko baam waaye lu mel noonu nangu na ëppante donte yenn xel wala itam ba xam doon nañ ko garab rek mbaa ñu koy aw jiw te amul luñ cee segale di amul diw buñ cee segale kon mën na nangu ëppante ci bu ñu ko dee jaayante nangu na itam nga jënd ko fee jotewoo ñëw jaayaat ko xaat te fekk mu lu war a peese mbaa war koo natt mbaa war koo wàññee wala ba asa awit bi bay xit taxaami ci jaay aw ñam alxardi udib able ngir yàlla xabla an yastaw fi xoo njëkk mu koy ñëpp nee na bu ñu la jaayee fi aw ñam dañ ko tudde jaayee waaye abal la ngir yàlla mooy da ngaa soxla pepp rek ndax pepp dafa jafe mu abal la bërigo waaye bërigo nga koy delloo rek moom wala ceeb dafa jafe mu abal la bërigo ceeb waaye bërigo nga koy delloo loolu la ñuy alxardu ngir yàlla tax ñu koy def moom nee na mën nga ko am fee ñëw jaayaat ko te jotagoo ci maanaam bu fekkee romb nga ci borom bitig bi nga wax ko sag jaaxle ci dugub mbaa ci ceeb mu nangu laa abal bërigo dugub mbaa bërigo ceeb xam ne moom na nga koy delluwaat jëm bërigo dugub ak jëm bërigo ceeb rek moom noonu mën ngaa ñëw fi jaayaat ma ko xaat te jotagoo ci te boo fa jaaroon boo fa jaaroon jënd ko ne moom ñu ko weesoon ci gannaaw xam ne lu du ngir yàlla da nga koo jënd dëgg moom nga xam ne bénéfice am cee topp kon moom doo ko mën a jaayee te jotoo ci waaye loolu moo wutale ngir yàlla alxaradu ak jaay dëgg la ñoom wala ba sa awit bi shirikati ci bokkaale wa tawliiti ak féetale wa iqaawit ak xàcc fi taxaami ci ñam almakir yi dul natt xam la xabli ci ñëkk ak nga moom ima buñ la jaayoo ñam woo xam ne su ko war natt mbaa ñu war koo peese te jotagoo ci du tee mën ngaa ñëw bokkoog bokkoog kenn mën ngaa ñëw fii nit ñu nit diw man de jaay nañu jaay nañu fee nangam ci pepp mbaa nangam ci ceeb kenn ko bokk maa yow sharika bokkaale mooy nga féetewoo genn wàll mu féetewoo genn wàll ci misaal ngeen mel ne ko ko société waaw moom rek moo ko jënd waaye daa ñëw boole la ci mooy nga fay genn wàll ci njëgg mu fay genn wàll njëgg ngeen bokk wax loolu mënees na ko teewlu yooyu féetale nag mooy nga jënd ko fee ñëw far ma ko féetalewaat maanaam njëgg nga ko jënd woon foofa rek nga ñëw mu féetewoo ko man ci njëggoo ko far benn yoon yow nga génn loolu mooy tawlu yaa iqaala nag mooy xàcc mooy kee ko jaay bu ngeen ci juboo wax ngeen ba juboo ba nga xam ne léegi moom te la amee ceeb mbaa pepp war la koo jox yow nga amee ko njëkk nga juboo waa ci ngeen xàcc ko mooy nga téye sa njëkk mu téye lam la doon jaay mu pepp ma mbaa mbaa ceeb ba loolu mooy xàcc gi loolu tey nee nañ dagal na ngeen def ko bu ci juboo yooyu ñaari mu kàllafi rek baax na wa kullu bayhi xaq wa kullu xaq di bayhim gépp pas-pasu njaay aw ijaayat ni wala yooloo yooloo nga defloo nit fay ko niki tabaxloo ko fay ko wala ñaawloo ko fay ko aw kiraay wala luyaas luyaas mooy luyaas ab néeg wala luyaas kër wala oto wala yooyu bi xatarin tam ànd ak xatar aw xararin wala xarar yow yaa daan ko ñu xaw a niroo maanaam amoorut rek lañ jublu ngeen nga firi ko mën nga ne bi xatarin ànd ak bu wóoru di aw xararin wala bu wóoru di rek ndax mu yomb la fii sama moo xam ci njëg la aw mas moom mbaa la ñuy jënd aw ajal mbaa ab ab falaayu joos kon du dagan foofoo daanoo si falaayu joos nee na bu ngeen dee njaayante njaayante gu mu mën di doon bu ñu umpalee njëgg bu njëgg amee ab wóoradi rek waaw jàppal ne kon saa yu ngeen dee jaayante njëgg ñi faye bu amee wóoradi ni ki njëgg ñi faye day lu ñu sàcc te xam ñu wax ne la fayam nit waaw wala la ñu jënd ci bopp moo wóorut nit ki la ñuy jaay ci boppam day nabo ñu sàcc wala oto bu ñu sàcc wala rabo bu ñu sàcc taxaw ñu daan ci cooto ndéet ba at ba ñu waxante moo wóorut nit ki la ñuy juboo ci bàyyam dafa tukki Italie bu bàyyam ñëwee rek mu fay ko xam nga loolu xam ñu kañ la bàyyam di ñëw te xam ñu kañ la bàyyam di ñëw waaw kon nañ jàppal ne bu ngeen dee jaayante ak boo koy defloo di ko fay ak boo luyee ci moom dara mbaa moom muy luyee ci yow dara te aajowoo ñu xam lañ ciy fay bu wóor a wóor ba noppi itam mu lu wóor a wóor du nekk lu ñu sàcc xam ne dina feeñam déet moo xam la ñuy jaay moo xam la ñuy jënd moo xam la ñuy fayee kay liggéey at ba itam noonu daa war a wóor bu dee at wóor rek mu daal di araam wala yoo joosu du dagan bayxul xarari jaayu xarar maanaam gépp jaay boo xam daa am wóor di rek des ko sañ nekk dama lay jaay lii ci kaw xaymaam maanaam yow muy jaay wala moom muy jënd kenn xamul ci njëg gi waaye dañu dem ci jullit yi ko xam rek lu ñu wax rek moo doon njëgg day mel ne kon njaay mu dog na xaat te xamuñu ci dëgg-dëgg lan mooy njëgg wala dama la koy jaay ci kaw bu demee lu di wax ne mooy njëg gi rek nga fay loola tam dogu ci ne moom bu di waxee loolu rek faaw loola ngay fay loolu tam awo nañ koy aaye ak njaram xaral la wala boo ko shay in du caa génn jaay dara màcc xooluñ lu luñ réere dañuy sàrt ci la ñuy jaay ak lañ koy fayee muy njëg ñu xam ko ci biir biti bañ caa umpale dara dara kon nag jaaw lu ñu umpale mbaa def njëg lu ñu umpale dañ koy aaye léegi bi ne woon bu waat bii liñ ci kaste xamuñu lu mu doon dañ la koy jaay rek noonu bu loo ci fekk rek muy sosaas loolu day araam ndax loolu amul ko wóor wala ñu ko doon def njëgit ba tey noonu du baax wala ila ajalin du caag yoon jëm ci àpp ma jëfool ni bëti bu ñu réewee bokk na ci araam ngeen di jaayante jëmale ko ci àpp boo xam ne xamuñu ban lay doon niki sama baay dafa tukki woon Italie bi ñëwee rek ma fay la te xamuñu kan lay ñëw loolu dañ koy aaye wala wajoo sunu dagan fil buyooxi ci jaay ya ak tadliisu nëbb ayub waaw nee na boo jaay dara day araam nga nëbb ci sikk sikk sikk soo ci xam da nga ko war a leeralal kii jënd ba mu xam ko su su su fekkee teewu ko bëgg nag baax na su bëgg bàyyi loolu wut nag aada yi wolof yi ak ñi xamul dañu defee ne moom boo jaay dara bu amee sikk da nga ko war a nëbb sax ndax mu jar waaye loolu araam na ko war a leeral dañ ko war léegi wala xis du caag yoon jaxase lu baax lu bon maanaam di ko jaay dara mel ne mooy tur bi te fekk na royal bala wala da ngaa jaxase lu baax lu bon mel ne ngay jaay lem jaxase ci tàndarma wala nga dem togg tàndarma ne lem la di ko jaay turu lem wala nga jaay moo yokk ca am ndox waaw wala mu jaay yàpp wal ko ba mu fodd ci ko mu dafa duuf moom daal lépp mu ngi ko wanee ne pur la tudd pur ba rek mbaa raxu ci dara fekk amoon ci rax rek loolu xëccu la bokk na ci araam moom itam wala xilaabatu du caag yoon war ci wax war ci wax mel ne publicité en publicité dara ba wax ci loo xam ne amu ci nga koy jënd defee ne ni ñu ko waxee noonu la tëdd yow noonu loolu day araam kenn sañu kenn sañu ko li mu ci wax rek ci baaxu njaay ma na fekk loolu nekk ci njaay ma wala xadiixatu du caag yoon war ciy jëf war ciy jëf itam dañ koy aaye nee nañu bokk na ci war ci wax yow bokk na ci war ci jëf mbaa war ci wax sax ñu wax ko njëggu seer a seer goo xam ne lu mu fay fay fay ci loo xam ne jaaduwu ja ndax la nga ko wax daa réer yaay boo xam ne moom lu mu ci fay faaw mu fay ci lu ëpp la njëgg war a toll bokk na ci war ci jëf nag ñu ñëw mu jox ko mu toog mbaa fekk mu tàng mu jox ko ndox mu naan wala loo xam ne daal def naa moom moo xam ne gannaaw ba su waxaaleen moom njëggu nga ko wax dina fay dana rus dana ko furu sa weesu dem di jëndee keneen yooyu yëpp dañ ko waayee baat yooyu bëgg a wax ne moom day firi yi mu wax baagal te du wane ne moom lay firi ndax lee mu ne wala kit naam xuyoo bi du caagéen nëbb sikk ya mooy maxnaam tadlis tadlis ba mu waxoon looloo koy firi nëbb ay sikk mooy maxnaam tadlis wala xaltu dañuy indi caagéenu jaxase aji bon bi yooyu din ci aji baax jaxase lu baax lu bon loolu mooy xëccu xëccu ba mu wax léegi looloo koy firi ba tey wala an yaktuma du caageenu mu nëbb min amri sil at yi ci mbirum marchandise am maa loo xam ne ida dakaraxoo ndéem tudd na ko karixaxoo kon sib ko al mubtaaxu aji jënd ja aw kaan wala nekk dikkaraxoo tuddam nga ab xasa di wàññi di gën wàññi lafoo ñeel ko fi tamane ci njëg wa waaw noonu day araam boo jaay dara nga xam ca loo xam ne sécurité waxoo ko lépp loo xam ne bu ko waaji xamoon far du jënd baa bu nga jënd tam la moom ci njëg dana ko wàññi du ci mën loolaat wan nga ko leeral léegi bu dee alal miraas sax yaa ngi ko yaa ngi ko amee ci miraas war nga ko leeral na ko maa ngi ko amee woon ci mbirum doon ndax daal ñoo xam ne dañuy sib lu bàyyi ko ci xeeti dono yooyu loo ci nattale naa dana ko neex dana ko naqaral di ko naqar rek leeral ko ba xam su bëggee jënd su bëggee bàyyi. léegi ñu ngi sonn ci gannaaw nag mu ne waa naa ñuy joosu bay xul xarari misaal nañ ko foofu waaye misaal mi la gën a leer xëy na mooy lu mel ne. jaay moo xam nañ koo sàcc xamuñu ba xam daan daan ko gisam déet mbaa jaay moo xam daa réer mbaa jaay may net moo xam ne tàmbali ko tamit sax xamuñu lu mu mujjee yu mel noonu moo ñu gën a leer xëy na ci jaayum xarar waaye moom la yaatu yaatu la nag loo mel ni bu taaxa ku jënd ab dan ab jaam fa wajale te mu fekk bi ci moom xay ban sikk fa laxoo ko ñeel na ko ay yax bi saxoo mu téye ko wala chey te jot dara loxo di ko ñeel waaye téye ñu ne dañ ko tàlliwoo daa fekk mbirum jaam xew am atte yu bare bare bare moo tax da nga ci gis ci téere boo koy jàng mbirum jaam mu bare ci lool te wutee suñu jamono ji nga xam ne dara ci njaam amatul léegi yëpp jeex na li mu toll na mooy daa wax ne boo jëndee jaam fekk ci sikk ñu jaayal la ko ci te xamoo ko woon kon bu la neexee téye ko rek mun bàyyi noonu rek nga fekk ko téye noonu ak warul doxoo wala mu xàcc ko wala aku sa te muy jàpp sama na wanjaram nga bu la neexee nga dem xàcc ko jëlaat sa njëkk delloo ko jaamam illaa am yaddu ko la xoo ndara bu da koo dugg xinde xoo fa moom xay bun sikk muf si dun suy aji yàq lu may nag dëgg la ki la jaay jaayal na la ci sikk waaye itam ba mu ñëwee ba fi yow sikk da ko faa dale kon léegi jaam bi ñaari sikk ngi ci seen si nañu ko ci jaarale seen si moom ba mu ñëwee ba fi yow la ko dal kon kat léegi dana am benn atte kon fa lafoo ñeel na ko am war jaxam mu dellu bi xiimatin xay bi ci xaymay sikk sa alxadiimi say aji njëkk mu ne fënn na ci njëgg kon su la neexee nga téye ko te ni seet sikk si la ci jaarale lu war a wàññi ci njëgg mu remboursé la ko noonu ne ku xool sikk sam la ca jaayaale war naa tolloo ñaari junni dañuy xayma loolu ci bu amutoon sikk si ak bu amee sikk si la dox ci diggante yoo kon mooy sikk sa léegi bu fekkee dañuy wax ne ñu la ko jaayee fukki junni waaye ku xam ne sikk saa ngi ci moom juróom lay war a jar kon mën nga koo téye itam delloo la ñaari junni sikk si des moom ci yow la ko dalee moom dara def lu ci jox dara yàlla ko dool te ci yow la ko dalee waaye moom bu la delloo ñaari junni kon nga téye jàmm loolu baax na aw warul doxoo wala mu xàcc ko wa warul da tamuy delloo maa la nga xam ne naqasuhoo wàññi na ko ko alxay bu sikk sa xindahoo fa moom bu la neexee nga xàcc ko nag waaye kon sikk si nga xam ne fi yow la ko dale yow da nga koy remboursé boo demee ndax sikk si ko dale fi yow nga ci duñ ne ñu nga ko jaayoon fukki junni léegi sikk si mu la ci jaayale ñaari junni la waaye sikk si ko dal fi yow benn junni la waaw kon léegi su neexee xàcc ko delloo ko jàmba te delloo waale ko junni boole ci waaw ndax sikk si ko dale fi yow wa in radda ndeem xàcc na xabdan ak jaam bi xay bin ci sababu sikk wa qad istaxal lahu te mbir moom xalla woon na ko maanaam te mbir moom jëriñu woon na ko rek fa lahu ko ñeel na ko xallatuhoo njëriñam la nee na bu fekkee ne jaam bi la jaayoon na nga ko tàmbali woon a jëriñoo nit ki di ko liggéeyloo muy liggéey ñu koy fay mu lay jox mbaa muy jaay bitig ci misaal ñu koy fay mu lay jox mbaa muy maçon ñu koy fay mu lay jox ba nga xëy ne sikk si nga dem xàcc ko la mu jotoon jox boobee ci jël bi nga ko yore woon te xamoo woon sikk si ba di ko xàcc loolu lépp lay ma la maanaam kenn la wax ne delloo waa loolu li nga jëriñoo ci diggante boobu loolu lépp lay ma la wal bay xu jaay nag xaloo xiyaar yi ci kaw xiyaar jaay suñu aji balan la jaay daa wax ne li ñuy wax bay xul xiyaar dagan na bay xul xiyaar nag mooy ngeen jaay ngeen jaayante waxaale ba juboo ci njëg te sàkk dele boo xam ne li fee ñu cay àgg kum soob ci yéen ñaar su ko neexee bàyyi njaay yi bañ ko wéyal su ko neexee itam wéyal loolu nag moo tax mu naa ida daraba ndéem sadd nañ ñoom ñaar sadd mooy sàkk sàkk wala ràññeel li daalika ñeel loolee ajalan àpp xaritan bi aju jege ilaamaa ba ci loo xam ne tux tabaru def na mën a nattu def na mën a seetlu fii ci moom tilka silxatu moo mel ni marchandise te mbir ngeen juboo ci li fekk dale sàngam kum ci neex deltu gannaaw wala moom mu jënd moom moo wax ne man danga may may montre bi muy jaay ma kor na mat ko li fekk ñaari fan ba xam am na aram net soo amee ñaari fan nag te gisuma ci sikk njaay mu door a dog ma ci gisee sikk delloo la ko bu dee leneen ba tey noonu sogees na ko almaa wala loo xam ne takkoo ñëw nekk fii ci moom almashuritu diisoo wala lislaay wala boobu lañ ko jaay mu ne man di bëgg naa ko waaye dama ko xamul lool am naa nag koo xam ne ko ko xam la loolu mooy métier ba muy juboo ci li indi fekk dellu sàngam mu wan ko ko waxtaan ceel mu ba xam waaw ñu door dogu njëg gi su boobaa bu ci gisee sikk waaye loolu doy ko ñu bàyyi bu ko bëggee yoonu yoon loolu ba tey baax na walaay joosulu dagan am naq du teewal njëg fil xiyaar yi ci xiyaar nee na njaay moom nee nañ moom buñ sarteen da ngay fay ba saa su mu yàqu ndax na nga xam ne day dogam du dog buñ sarteen ne faaw da ngay fay ba saa su moom du yàq wala fii xuxudati salaasi du caagéene ci xuxuday ñetti fan xuxuda wala fi firiwuñ ko dara waaye mooy responsabilité wala ba nga ne mooy gàddu ci wolof waaye yooyu jamono daa toll woon ci jamono jaam xewee buñ la jaayul jaam nag ci kaw kii jaay moo garante jaam bi jëru ñetti fan gannaaw bu ko waaj jëndee du tee moo garante moom ki woon jaay ñetti fan loolu mooy xuxud xuxudatu salaasi loolu lañ ci jublu jaayul jaam bu noppi gannaaw bu ko waaj jëndee du tee ñetti fan yi nga xam ne moom mooy ñetti fan yooyu ci topp aji jaay ji moo ko garante bu dee xoon sax ab jaayam lee ci jëm dañu la ñëwagut loolu moom nee na kenn du ci sart ne faaw nga fay fi saasu xanaa bu ñu sartee ne kii kii jënd faaw nga fay fi saasu mu yàqu wala fi mu waa baxati du caagee ni ci jaamu tër tër loonte yëpp duñ ci sart teewal bi sart njàngoog bi sart na ànd ko sart bi sart ci yëpp la dellu mu waa bax daañu ko wax léegi maanaam mu la dee jaayu jaam boo xam ne dafa am taar boo xam ne ku ko mosaa moom rek da nga ko soxna woo mbaa amutu taar waaye ko ki ko jaay nee man baanaa ko soxna woo léegi nag mu waa baxa mooy kon jaam booba ñu teg ko ci loxo ku ñu wóolu ba xam ëmb na amut ndax ëmb dafa nekk sikk su rëy ci jaam waaw ko defee nag ñu sartante su fekkee ne ëmbut moom mu door a jënd su fekkee ne ëmb na ñu xam ne kon sikk la loolu nag kon kenn du ci sart ne faaw nga fi fay fi saasa bu ne ki jënd day fay fi saasa rek mu yàqu kenn waru ci teewal ne faaw dañu fay fi saasa wan na waxatu dund ba fii daalika ci loolee wa damaanu ak gàddu ba xalal daa yi war na aji jaay ja nee na nag diiru xiyaar boobu ak bu dee xuuf dëttu salaas bi nga weesu woon ak bu dee mu waa baax ñoo ci yemoo lu mu ci mën doon jëndkat moom moomagul dara waaw garanti wut te warta dundal maanaam dund ba garanti ba lépp jaaykat bi moo ko gàddu di dund bi diir boobu jaaykat bi moo waa gàddu dund ba moo garanti itam bu ci dara xewee ci gannaaw ba ba ci faatu sax wala lakk sax bu dee luy lakk moom mooy ñàkk rek waaye jëndkat bi moom moomagul dara moom wa innama yutaadahu naka def na tartarloo lil istibraay ngir laablu al jaariyatu jabir ba laablu mooy xam ba am am na amut al jaariyatu jabir ba allati ba nga xam ne lil firaashi ñeel lal ba fi axlu bi ci la gën a bari ana jabir boo xam ne dafa am taar ba nga xam ne comme ça moom daal danga koy def ne soxna di jotee moom moo tax bu tuddee ko ñeel na lal ba mooy ku ko am daal taar ba dina tax ngay jotee moom awil lati wala jébbiir bu jigéen ba nga xam ne wala mu ne awil lati wala jébbiir ba nga xam ne aqarra saxal na albaayu aji jaay ja bi wat ihaa ci ak laalam wa in kaanat ak doonte nekkoon na wax cham bi am kiis kiis mooy ko ñaaw loolu bu fekkee ne jaam bu jigéen bi dafa am taar ba nga xam ne ku ko saa moom da nga ko def ne soxna kooku doonte sax ki koy jaay néewut daanaa ko def na soxna it tutee des na ko përtërloo maanaam kii jënd dana bàyyi ñu teg ko ci loxo yi ku ñu wóolu ba xam am na amut loolu mooy laab lu ne ba tey bu fekkee day boo xam ne amul taar am kiis la sax wala mu digg doon ci taar waaye ki ko ki koy jaay moom nee na man daanaa jotee moom waaw ba tey loolu kon des na ko laab lu xam des na ko përtërloo teg ko ci loxo yi ku ñu wóolu ba mu gis deret benn yoon bu gisee deret benn yoon rek mu daal nekk ak laab lu mu amut wala tajuusu tu dagan albaraatu dañ talu ñu mën a xam li ci ëmb indi ñoom dañuy jàpp ni sikk la ci jaam ba doo sañu jaay ab jaam ne ko danaa ko jaay waaye bu ëmbee itam sama yoon lu ci nekk koy di yow sa ngaar lay doon te de loolu des ko sañ illaa xam ne ndara ëmb zahiran bi aji fés lu may danga koy jaay te jaam bi ëmb ëmb bu fés a fés loolu kon dagam gis nañ ko ëmb fés na moom kon dama la ko wax ne kon yàgg-yàgg jaay naa la ko génn naa ci ndax ëmbut moom dama fës na kon a gis na ko loolu kon amut lañ ciy làq-làq wal baraatu dañtalu fi raqiqi ci jaam ya jaayisatun aji dagan la min naa ci lépp loo xam ne lam yaalam xamu ko albaayu aji jaay ja dañtal liñ ci jublu mooy maa ngi lay jaay waaye lu yàgg-yàgg doo ma ko delloosil boo ci gisee sikk doo ma ko delloosil loolu moom jàppal ne sañeesu ko loo mën di jaay nit ne ko soo gisee sikk doo ko delloosi duñ ko faale bu ci gisee sikk rek sañ ko delloosi ba mu des nag jaam moom la wax jaam moom ñu am na ñaari sart yoo xam ne bu ci dajee mën nga caa doog ne ko boo gisee sikk itam doo ma ko delloosi benn bi mooy yàgg naa yow yàgg boo xam ne bu amul sikk war nga koo xam muy benn ñaari bi mooy xamoo ci sikk ba noppi di ko nëbb waaye bu fekkee da nga caa xam sikk ba noppi di ko nëbb donte yàgg naa yow ba noppi ne ko nag bu ci sikk feeñee doo ma ko yët gannaaw bi bu amee seere mi sikk si xamoon nga ko danga koo nëbboon rek bu tee dental ko du am njëriñ na ko sama delloosi bu fekk yàggutoon ci yow itam noonu ma nopp nga ne ko bu amee sikk doon ko delloosi bu tee nga sañ ko delloosi lu bokk te jaam na sañoo si ci loolu sax moom loolu mooy ci jaam sax mooy ko ci leneen leneen loo ko doon jaay boo ne ko bu amee sikk itam doo ko xàcc bu tee bu amee sikk nga sañ ko xàcc wala yu farraqu du teqale man nga ne wala yu farraqu doo ful teqale baynal ummi diggante ndey wala diha ak doomam fi bay ci jaay ma mu am doom dama jaayandoo ñaar ñëpp waaye doon mën a teg tàggale jaay ndey ji bàyyi doom ji wala nga jaay kee ndey ji jaay kee doom ji ñu tàggoo ñoom ñaar loolu xam nga ne mooy temat la day araam ñu def ko xataa yus xëy ba te mu foqee maanaam ba te nga xam ne doom ji sax na bañ ba yooyu dañ ba mu saxaat yeneen maanaam ay bëñam saxoon nañu bañ ba yooyu foq ba mu saxaat yeneen waaw saa boo foofu nag foofu door a sañ a jaay tàqale ko yaay ja waaye bu loolu doo mën a tàqale ci jaay wa kullu bayhin gépp jaay faasidin buy aji yàqu fa damaanuhu ak gàddooy ñal waay yi tukkee na ci jaay ja nee na gépp njaay goo xam lislaam neen awut yoon baaxut bu ñu ko defante day mel ni fasuut day mel ni jaayante wu leen ba léegi garanti bi jaaykat bi moo garante maanaam lu ci xew rek moom la ci xewal fa in xabadaxoo neem ñëpp na ko al mubtaahu aji jënd ja fa damaamaxoo kon gàddoom nga ñoom mubtaahu tukkee na ci aji jënd ja mu ñëw mi xabdihi ci bisub nga bum nga daa wax ne suñu jaayante jaayante goo xam ne yoon nee na baaxut kon aji jaay ci moomam lam doon jaay ba tey aji jënd ci moomam njëgam ba tey léegi nag bu fekkee ne aji jënd jot aji jënd ji jotoon naa jël njaay ma ba yóbbu ko kon bu ca dara xewee yóbbu gam ko yóbbu rek mooy tax dara war ko caa léegi dañuy seet nag bu fekkoon ne moom dara sikku ca day delloo rek jëmmi lañ ko jaayoon kam jaayoon ka ko jaayoon delloo ko jëmmi njëgam waaw bu fekkoon ne nag ñaari mu kàllaf yi ñooy jaayante waxaale ba juboo doonte sax jaaykat bi joxagul jëndkat bi dara it fekk na njaay mi moom war na ba noppi maanaam kii jaay sant wax ne man daay téye li ma doon jaay waaye ndaa kii jënd jékki-jékki ne xàcc naa rek waaye day aajowoo ñu juboo ci xàcc ga door a mën a nekk léegi nag bu yoon ne ni ñu jaayantee day baaxut bu da koy dindi day def léeg-léeg fekk delloo ga jëmm ja raw ah delloo jëmmi njaay ma ñu joxaat ko njëgam raw léeg-léeg itam fekk loola du raw du raw maanaam loolu na lay bëgg a leeral mooy fa in xaala ngeen soppiku ne suuquhoo marchéem ba aw taxawara wala mu soppiku fii badanihi ci yaramam ba fa alayhi kon war na ko qiimatuhoo xaymaam ja yow ma qablihi ci bisub ngëbam ga wala yarut bu xóotali ko delloo ne liñ ko jaayoon te yoon ne njaayante gi baaxut bu fekkee bi ko yoon di seet bëgg ko àttee fekk na mar njëg ga soppiku maa lam daan jar ci marché ba benn ëpp na fi mbaa yées na fi waaye tollootul noonu te daan na daan yëg daal wala nga xam ne jëm yaram ci wet moo soppiku fekk bu fekkee jur la woon léegi yooyu na te daa suuroon mbaa suur ñu te dafa fekk mu yooyoon su boobaa dëgg la njaayante gi baaxul waaye dañuy téye jëmm ja yow mi ngi jaayoon te wax ne njaay gi baaxul dañuy téye jëmm ja tey seet xayma ja dañuy seet wóoróor ba nga xam ne moo ci jaadu rek nga joxe rek te ñu bàyyi njëgg njëgg yi waxantewoon wàcc nañ ko faalu njëg njëgg jëm ko jaayoon dañuy seet xayma ji nga xam ne moom lañ ko mën a xaymaa ci yooyu jamono rek waaw bis ba nga ko ngëbee rek bis moom la ko joxee fa xayma ja tolloon rek loolu nga koy jox dañ ko moo xam ne moom dana njëgg na waaye loolu faawuñ ko wa in kaana dem nekk na mën maa di loo xam ne yoo zanu def na ko peese aw yukaal la def ko nag fal yarul dokkoon na delloo mas la fekkee moom ma maanaam nag bu fekkee ne sax njëgg soppiku na mbaa jëmm ji sax nekkatu far waaye yàlla dafa def rek moo lu ñuy peese mbaa lu ñu natt mbaa lu ñu wàññi kon moom du tax dara raw ca da nga koy delloo da nga koy delloo bu dee lu ñuy peese nga delloo ko toll ne loola ci poids bu dee lu ñu natt nga delloo ko toll noonu bu dee lu ñu wàññi ni ay nen nga delloo ko noonu toll noonu bu ko dee mu delloo la sa njëkk waaw te jamono donte loola njëgg soppi ko mu gisu ko faale donte gën naa gën naa yomb ba gën naa jafe it ak gën naa tax ñu faale ko te que moom lu ñuy peese mbaa natt mbaa ñëw delloo ko toll noonu ndax yoon na ne njaay yi baaxut wala yu fiitu du rawal ar mu baax ak kër xawaalatul aswaax yi sopp ko marché ya nee na bu fekkee ne ñun duñ jaayante ay mbirum kër la mbirum suuf te yoon nee na jaayante gi baaxut moom nee na sax yàlla dogale yooyu jamono njëgg soppi ko sax maanaam njëgg yëg na mbaa mu wàcc sax du tee ñu xàcc ko waaw du tee ñu delloo borom suuf sa suuf sax delloo borom njëgg njëgg ndax mbirum kër moom day loo xam ne daanaka saxul fenn day yëg ak wàcc rek am na jamono yoo xam day gën di yëg fu mu toll nag léeg-léeg waaye yooyu jamono daal ba ñuy tarif yi xam ne moom boobu mbirum kër moom saxutoon fenn moo tax kon soppi ko marché ba du tee danga njaay njaayante yi war na ne baaxul ñu xàcc ko rek delloo borom suuf si suufam delloo borom jëkk njëkk wala yajur su dagan salafun ab leble yajur lu bëpp day ñoddi man faxatam njëriñ waaw nee na dañuy aaye nga lebal ko lebal goo xam ne day indi njëriñ maanaam loolu dañ siy jublu al xardu nga di ko jox loo xam ne moom lay delloo si waaye da nga ciy am njëriñ mel na nga lebal ko pepp moo xam dafa yàqu dafa larax ngeen moom mu fay la ko pepp mu yees nga loolu ak la jëlee boo xam ne am na njëriñ lañ ko waaye bépp leble boo xam ne day tax day am njëriñ keneen leble rek dañ ko waaye leble nag daa bokk jaay jëm ci jëm ci jig jaay jëm ci jig wala fi ma lañ ko tuddee waaye ci téere yi dañ ko woowee albayu ilaa jëlin waaw xam nga tey mën ngaa jaay ñu dara te du la fay licence bi nga fay bu war a dee wala bu at mi dee loolu moom jaay jëm ci àpp loolu moom bu at bu wóoree rek njëgg ak kii rek baax na moom bu doon a njëriñ ca koy jaay itam loolu la ci doon wut waaye ni nga koy jox nag moom la lay delloo si ba noppi nag di ca dolli dara lépp la nga ko joxoon mbaa mu gën a baax la nga ko joxoon nag waaw loolu la ñuy woowee lebal bu am njëriñ nañ ko waaye wala yow joosul lagan bayxun boole jaay wa salafun ak leb dañuy dañoo bëgg bu ñu dee jaayante jaayante ci yot bu ñu dee lewlente lewlente ci yot waaye bu ñu boolee ñaari contrat yi ne faaw ñooy lëkkaloo bu lee amul loolu am loolu nag fa naa am ci bi ñu daan joxe fii li ñuy wax seko am jamono yoo xam ne dañ lay jaay lii moom nga fay ko fi saasa ñu lebal la lii nag xam ne faaw dañu lëkkaloo ñoom ñaar waaye loolu lañ ko waaye duñ nangu lëkkale waaye yëpp bu lee amul loolu am loolu sañu su ko dañuy jaayante ci yot lewlente ci yot mu yaari contrat yi jotewul dara wa kadalika naka noonu maa lépp loo xam ne xaaral na lëkkaloonte naag ak salafa lépp min ijaaratin ci yooloo yooloo mooy defal ma mu fay la aw ijaara aw kiraay mooy lu luyaas luyaas defal ma mu fay la ma doon laa lebal naa ñu lëkkale ma ñaar wala ñu bëgg daal lëkki ak luyaas niki ah nangu naa laa lebal loo tàmbalee bloqué waaye faaw sama bëcc bi ci dëkk bi yaa koy looyee xam yaa koy looyee nekk ci doo nangoo looyee bëcc bi daal moom weer wu na nga fay ma nangam nangu naa laa lebal nag marchandise yow nga tàmbalee jaay jaay yooyu xam ne ma bëgg lëkkale leble beeg luyaas bi wax dañ koy aaye day aajoo lenn ci nekk beru rek daal njaayante gi day beru lebante gi day beru defal ma mu fay la day beru luye luyaas ci moom day beru xëy dis leen lëkkale basalafu leble yaa isin aji dagan la fi kulli seen ci bépp mbir dañ ko sopp sax da ko tuddi asalaf bàyyi moom alxard la jublu maanaam nit aajowoo dara nga abal ko ko bu aaj bu soxlaam fa yow mu delloo si la ñu tol noonu du ko du ko yokk du ko wàññi waaw loolu dañ ko sopp sa yoon yoonu rek dagan man ñi soxla téeméer doom rek nga abal ko téeméer bu faj ci soxlaam téeméer képp lay delloo si du ci yokk benn dërëm kon dañoo tolloon ci di wax naa lépp loo xam ne loolu yitteem la nga abal ko ko rek mu delloo si loolu ñu tol noonu da ko yokk da ko wàññi loolu la ñu soppale sax yow mi ci dagan gi ñu wax dong ma seetee ci illaa fi jawaar yi dara ci ay jégóor dara dama dama nañu jaamu jigéen amee nit mënta am soxna ma bëgg ko abal na jaamu jigéen ma nekk ko abal ab sowkaay rek loolu nañ koy aaye moom maanaam bu dee jaamu jigéen nga abal ko koo xam ne araam na ko nga xam da ko liggéeyal rek moom aayewuñ ko waaw loolu nanguñu ko bu dee jaamu góor nga abal ko jigéen joo xam ne araam na ko ba tey loolu mën ko liggéeyal nanguñu ko waaye nga abal ko nag jébéer moom na nga ko bëgg abal ab sawukaay mu faje bànnee xam la ëmb nga ko abal nag loolu la ñuy aaye wa kazalika naka noonu turaabul fiddati suufus xaalis bokk na ci yi nga xam ne sañee su ko leble ndax wóoru digga lool te xamuñ ci lu wóor mooy lu mel ne tëgg bi tëgg wurus ak xaalis suuf si nga xam ne ci lay tëggee wurus ak xaalis ba mu la koy lebal nga di ko jeex bu ko defee nga fayaat ko nag suuf moom itam xam nga loolee ngay jeex xamoo sax ba am na nga ci fekk daa am déet ak la nga cay fekk day bari am day néew man na itam bu fekkoon ne day suuf suñuy gas ci biir di ci génne wur sa xaalis mu lay abal ab mètre nga gas la ca nekk ba moom itam mu lay bu ko defee nga di ko fay ab mètre bu ko defee muy gas la ca nekk loolu gis nga na wóor a dee xam nga la nekk ci biir suuf sa moom yàlla rek xam na mu demee ci wur sa xaalis bari na wala bariwut am na ci am amu ca xalaata jël ci doogam alwadisatu sippi sippi mooy wàññi mu ne doy na ci bor ba xalaata ajilihi ci sart ak gaawem maanaam bu fekkee nit dafa la amaloon bor mu jëm ci bàpp nga ne ko léegi naa la wàññil bor bi te nga fay ma ko fi saasay saas loolu lañ koy aaye ñu xam ko bu baax a baax nit amee la bor dele bu ñëwut nga ne ko naa la ci wàññil nangam te nga fay ma ko nag fi saasay saas waaw loolu lañ koy aaye wala taxiru di jaagéenu yeexe it bi ci bor ba xala siyaariti ànd ak dolli bi ci bor ba loolu lañ koy aaye mu amil la bor nga ne ko naa la toppalal délai bi te nga yokkal ma bor bi itam li ki junni la woon jëm weer yi deexee nga naan ko defal ñaari weer tam defal la ko junni juróom téeméer waaw loolu mooy dolli bor ba te toppal délai ba loolu tamit koy aaye wala taajilu arabin du caageen gaawe fay marchandise xala siyaadati ànd ak dolli ga fii ca marchandise ma ibaakaana ndem nekk na man bay di tukkee ci jaay yàlla su fekkee da nga amee loon nit marchandise mu jëm dele mu ne ko nag naa la ko faj léegi tawakkal la sax laa la war a jox fekkee ci jaayante la bàyyi ko muy bëgg bénéfice ko waral rek niki ba dugg ñorawut mbaa ba gerte ñorawut nga ko joxoon xaalis di ko wëgloo nangam ci gerte mbaa nangam ci dugub ngeen diggante nag jamono magalu Tuuba léegi nag yooyu jamono gerte teel a ñor wala dugub teel a ñor xam nga yooyu jamono lay gën a yomb nga bëgg nag léegi teel ko ko jox léegi bala ñu àgg magalu Tuuba te yokkal ko ko ci bu fekkee yaa ngi ko war a jox fukki barigo nga nang ko jox fukki barigo benn wala fukki barigo ñaar nga xam nga jamono ñu toll ni gerte jafe gis nga ko nga xam ne moom bu fekkee dafa daan jar fanweer léegi defe naa sori na ko lool fanweer ak juróom ñaar loolu nag loolu xam nga xam loolu tax nag nga nangu ko teel a fay te waxtu asiwut te yokkal ko ko boole ci waaw loolu nga ko nangu daga moom ci jaayante lañ ko defee woon ñu bëgg bénéfice rek du woon ngir yàlla waaw kon doo ko mën a gaaw a fay marchandise bi te am loo ko ci yokkal déedéet wala ba as aayul nag ba tax jiibi yi ci gaaweem daalika loole man xar dum bu tukkee ci able ngir yàlla isaakaanam dem nekk na asiyaadatu dolli nga fi sifati nekk ci melo wa nee na bu fekkee da nga ko amalul marchandise moo xam ne ngir yàlla doo nga moom ngeen ko seqi woon waaye dangaa soxla woon dugub mu abalan la bëri bu dugub ngeen dige woon ci waxtu sàngam kon nee na bu la neexee waxtu ak segut nga fay ko ko fi saasa dana xaar waxtu woowu ndax ngir yàlla ko sosoon li nga koy jox itam mën naa gën a rafet lam la joxoon waaye nag ci qualité bi dong lay mën a ëpp waaye du mën a ëpp moom ci ëpp lim waaye nag li nga koy jox mën naa gën a rafet nee nañu lam la joxoon moom tax mën naa bu ndolin la nekkee ci kaw melo rek bu fekkee li nga ko bëgg a jox ne dafa ëpp lam la joxoon nag ëpp yu ko ci melo keseem ci da ko bëgg ëpp ci ëpp lim li ma wax aman radda ku fay fil xarab bi ci ab abal ngir yàlla ak sara lu gën a bari xadadan cib lim fi majlisil qadaay ci jotaayu fay ba jotaayu fay ba muy dele fay ba rek faxa dox tulife kon wuteef na fii daalika ci loolee ida lam yekkun dem amat fii ci moom chartu ab sart wala wa iwun du caajoonu ab doxal wala aadatun du caajoonu aada fa ajaasaxoo daganal na ko ashhabu sëriñ bi wax ashhab wa karihahoo tesib ko ibnul qaasim ibnul qaasim wala muy gis wute daganalu ko yooyu bu fekkee ne nit lam la abaloon ngir yàlla dama la àgg ci waxtu nga ko war a fay te moom jéem ko fay sax ci njëkk waxtu waaye waxtu ci bopp nga ko bëgg a fay mooy jëmmi delloo ba ci bopp waaye dangaa jékki-jékk dolli ko lam la joxoon te te kat sart ñu ko woon ne la woon buñ ci àggee faaw nga dolli ma nangam de kon moom mu yàqu dama ko woon ne ko maa jékki woo jékki dikk ko ne ko buñ ci àggee naa la ci yokkal nangam bu aada it foofu nga xam ne kuñ abal boo ci àggee dolli ci nangam yow yaa seet ci sa teew bakkan rek waxtu nga ko war a fay bañ ci àggee nga jékki-jékki fay ko ko yokkal ko ëpp loolu nag am loo ko ca tegal nag loolu mu am woote achab nee na dara ayoo ci ndax dara defal njëkk rek nga fay ko lu gën a rafet ibnul xaasim ne déedéet aay na te araam na fi mu toll sib gi mu wax sibu araam la ci jiwlu ibnul xaasim ba ne araam na boo réer ndax aw xaram bu ngir yàlla doo nga tax ñu war koo def kon kooku waru ci am lenn lu ko cay dikkal njëriñul àdduna moo ne fi mu toll nii day mbiru ne li achab wax yàlla na maa dañ laa dafa njëkk nga fay la gën rafet waaye taxul ñu ànd ci li Ibnul Xaasim wax rek lañ ànd mooy doo ko ci mën a tegal dara dara dara dara man tolloon rek la war a toll waaw man koo xam ne alayhi war na ko danaa niiru ay dinaar ay daraahin wala ay daram man bay hin tukkee ci jaay aw xaradin wala leble waaye dañ ci jublu able ngir ngir yàlla mu ajjal guddi guñ àppal fa loxoo ko ñeel na ko ay yu xaj jilexoo mu gaawee ko xam la ajjal yi ci njëkk àppam ba yàlla bu fekkee da nga amee nit ay dinaar mbaa ay dërëm maanaam daal mooy xaalis bi ñu jaayee ko jëndante ci biti rek boo ko amee lee nit waaw nee na moo xam da ngeen ko jaayante woon ba nga amel ko ko ca wala doo la ko amaloon ngir yàlla rek waaye fekk mu jëndante le nag kon nee na boo ko teelee am te aguñ ci dara ba mën nga ko daal di fay ndax dañoo jàpp ne waru sa xaalis bi yóbbu naa denc moom boo ko amee dara ba ñëwut te mën nga ko daal di fay lu may nag fa nga ko bëgg a fay boo ko fayee amaana ñu topp ko ci yoon wi mbaa danañ ci fayaat yeneen taxe ci yoon yi mbaa yeneen kon na sañ naa bañ ne la dañu àggoo ci waxtu ci béréb ba waaye ndaga moom yëpp amu ci moom kon boo ko amee rek te waxtu ak siw dutee nga sañ ko ko fay wa kadalika naka noonu la ko ñeel na ko ay yu xajji la mu gaawe alxorooda marchandise ya wa taxaan ak ñam wa man xar din bu tukkee ci able ngir yàlla laamin bay xin waxuñu tukkee ci jaay waaw mais képp koo xam ne amal nga ko marchandise wala ñam waaye génn nga ci waru sa xaalis ndax wax nga àtte waru sa xaalis léegi ku amee la ñam wala nga amee ko xeetu marchandise kon bu fekkee ngir yàlla dong ngeen ko seqee woon bare bëgg bénéfice amu ci woon kon nee na soo ko amee te dele ba ñëwut mën nga ko teel a fay moom waaw kooku mën nga ko teel a fay te waxtoo ñëwut teel ba nga waxante ak siwut waaye bu fekkee bëgg bénéfice taxoon kooku moom doo ko mën a fay te waxtoo ak siwut waaw waxoon nañ ko léegi ci gannaaw sa bënub day soo foofu la tàmbalee ah waaye foofu rek da caa boole woon nga bëgg caa yokk dara fii mu wax ni nag moom naroo caa yokk dara waaye da nga ko bëgg gaaw a fay te waxtoo ñëwut waaw kon loolu moo ko wutee jàppal ne kon boo amee leen marchandise wala ñam waaye la ko sosal ko muy bëgg bénéfice doon ngir yàlla faaw nga xaar ba dellu ba ñu waxoon te woon nga dara koo fay waaye doo ko sañ a fay te waxtu ak siwut kon nga seetlu ko bu baax wala yu joosu di dagan bay ko tamarin jaay am may ñet aw xabin wala mu topp lam yeb du moom feeñut salaaxuhu yiwoon nga yiwoon nga mooy ñorom nga waaw nee na xeetu may ñet wala xeetu topp bala nga koo jaay day dem ba ñor waaye li fi ñoragul rek nga xam ne yàqu weesagu ci doo ko sañ a jaay daa wax loolu waaye xeet yi law itam noonu lay mel waaye nag li ñu ci teg moo ci moo ci am ak ak jàppandi tuuti waaye joo sana dagan bay xuloo jaayam nga isa badaan dem feeñ na salaaxu ba abi yi yiwuk leen nam wa in naxalatan ak doonte genn tàndarma la min naxiilin ci ay tàndarma kasirit ñu aji bari waaye nee na meññit bu demee ba tàmbalee ñor rek donte sax lenn rek moo ci tàmbalee ñor kon xam na mel mën nga caa sukkandiku far jaay tool yëpp benn yoon wala tool jaay garab yëpp kon donte genn tàndarma rek moo ci tàmbalee mel ñor nam war a mel rek mën nga caa sukkandiku jaay yi ci des waaye nag mbay moom bokku ci bu doon dugub moom lenn di tàmbalee ñor ba du tax nga soñu jaay lépp faaw moom nga bàyyi ba topp mi lépp woo benn yoon waaye des ko mën a jaay noonu ci kaw rek lenn la ñor na mel na mën a mel wala yow jii suñu dagan bay xumaa jaay la nga xam ne fi am xaarim nekk na ci dex yi wala bërëk yi ak taataay yi mënal xiitaan yi ci ay jën maanaam dañuy sart ci sartum jaay li ngay jaay bi li nga waxante moom li ngeen di waxaale bu ñu àggee nga mën koo jébbal nga mën ko yëkkati jébbal ko waaw kon jën yi nga xam ne moo nekk ci dex ga kenn nappagu ko wala mu nekk ci taataay yi kenn nappagu kenn mënu koo jaay ndax da ngeen di waxaale ba jóge nga daal di ko jéem a napp di ko génne loolu warut te aajo li ngeen di waxaale ci njaay bu ñu àggalee nga mën koo yëkkati jox ko kon nag xeeti de xeeti jën yi nga xam ne kenn nappagoo kenn mënu koo jaay wala bay xul jën yi du caa génn jaay mbay mur fii bat ni ummi ci biiru bi yaayam maanaam lépp loo xam ne ñu ngi ko ëmb ci biir bi yaayam juddoowut sax kenn mënu koo jaay waaw kenn mën kenn mënta jaay loo xam ne dañ ko ëmb ci biir yaayam te juddoowut wala bay xumaa du caagéenu jaay la nga xam ne fii buttoon yi saa iril xayawaanaati nekk na ci biir mboolem lor yi ak baam rek la waaye li waxoon la yóbbaal na ko dana mboolem jur gi mboolem lor yi loo ci xam ne ëmb na mën laa jaay lam ëmb te juróowu ko waaye li waxoon la yóbbaal woon na ko wala bay xu nitaa jimaa du caagéenu jaay ngirteel la nga xam ne tumtaju dana ko jur ak naaxatu naaga ga maanaam nag moom day baat boo xam ne dañ koy tëg bu ci jàng na dañ koy tëg jëmit maful di wax tumtaju waaye max naay moom day am max naa firim tumtiju firim koy tëg jëmit faax xëy nañ jàng na daañ ko seetlu maanaam daa wax ne lii moom moo gën a ay lañ weesu woon mooy dees mën a jaay mbéemuru mbéemur maanaam lu ñu ëmb te juddoogut yow da ngay waxaale nag bis bu juddoo ba am doom moom ci boppam waaw li ñu ëmb nii te juddoogut yow li ngay waxaale kay moom bis bu juddoo ba am doom na moom loolu li koy waral mooy jamono yi nga xam ne dañoo fonk jur lool amaana léeg-léeg jur googu day baax lool nga xam ne ku ci am daal da nga ci am njëg da nga ci am xewal bu rëy rëy kon nit ñi mën nañoo tegante ci lenn lu ëmb rek dañu jëlee lu ëmb waaye nanga nañoo tegante sax ci bu loolu juddoo ba amaa doom waaye loolu lañ koy aaye loolu xalaatuñ ko ndax nee na woon li ëmb képp li ëmb kese te juddoowul sax mënees koo jaay wala bay xu maa du jaayeenu jaay la nga xam ne fii zahooril ibili nekk na ci gannaaw gëléem yi loolu itam mooy jaay mën yi mi nekk ci mboore gëléem yi xam nga loolu itam lu mën a am la bu dee jamono ñu fonkee gëléem lool bu fekkee kuy loola daa baax lool da nga gis ku nangoo ñëw jënd ngóor ak kuy loola maanaam wane ne man sama jigéen dong lay tëb du tëb du tëb yeneen du ànd yeneen yu jigéen nga xam ne kon kuy gëléem yu baax yooyu moom dong moo koy am ndax léegam gëléem góor bi du jaxasoo gën gëléem bu jigéen góoy yooyam rek dana ko jaral fay ci lu bare bare waaye loolu nangu ko dafa wax sax kuyul gëléem waaye du kuyul gëléem dong bu doon kuyul xar wala kuyul fas wala kuyul mbaam yi noonu lay mel waaw bu bëggee rek ne jaay nga ma daal luy ngóor gi sama yu jigéen dong lay jaxasoo du jaxasoo yeneen yu jigéenu keneen loolu ba tey ñu aaye ko wala bayul aadixi du caageenu jaay jaam bu daw wala ba yuri ak gëleem ak chaari di koy aji dàngal kooku daa bokk ci njaayu xarar maanaam dañ ne woon looy jaay daa war a wóor ba nga xam ne bu mu jugoo rek mën ko yëkkat teg ko ci loxoom jamono yooyu ne bu amee jaam bu daw wala alal ji ñu sàcc yu demee noonu nga xam ne xamuñu ba xam dana feeñam leen mbaa du feeñ kenn mënu koo jaay gëleem gu dàngal mooy gëleem gu teg njëxam moom itam li fekk jëpp ñu ci bu téyee ko des ko mën a jaay te noonu mu tege njëxam wa nax ya tereef na an bayxil kilaa bi walis jaay xaj ya maanaam bokk na ci sartu jaay yonente bi beneen yoon bañ aaye ku jaay loola lépp lu yoon ne bu kenn jaay rek kenn du ko sañ a jaay bu ñu ko jaayante day mel ni jaayante wuñu bu ki xaj xaj yonente bi moonu aaye ku ko jaay kon nag kenn sañu koo jaay waxtu bi foofu teef na fii bay maa ci jaay xaj ba nga xam ne addina digleef na fitti xaasi yi ci jàppam min xaaj xaj yi waaw nee na nag xaj boo xam ne dañ koo defar ba nga xam ne mën naa rabb ji ba mën naa wattu kër ba mënees na ko wóor ne mu demee ko dikk te mel ne ko wóot naa xaj yi ndax kon wóot naa xaj yi ba mënees na koo jaay wala déet wax ji gën a wóor mooy déedéet ndax ba yonente bi ay ràññale wutoon ba ñu digal ko wóot ak ba ñu digal ko wóot yëpp a ci yem wax ji gën a wóor mooy suñu su koo jaay ba topp wax ñi ko sañ jaay nag wa am maaman daal koo xam ne xattalahu rey na ko fa xale war na ko xiimatu koo xaymaam maanaam boo àndee ñu wax ne xaj boobu sañes na koo jaay ndax ràññi ko na ci xaj yi kon ku ko reyal nit fay ko xayma ja wala yajuusu lu dagan bayxul laxmi jaay aw yàpp bil xayawaani jëndi aw dundut min jins yi ci aw xeetam maanaam loo xam ne kenn rendéegu ko ni ki xar mu taxaw wala bëy yu taxaw wala leneen nga seet lu bokkal wenn xeet ni ki borom ñeenti tànk nga bëgg koo jox aw yàpp moom mu jox la loolee nga xam ne kenn rendéegu ko dañ koy aaye nekk nga bëgg koo jox fukki kilo yàpp nag mu jox la xar yu taxaw wala bëy yu taxaw wala weneen sëmb yu taxaw nga xam ne lee jur la goo xam ne kenn rendéegu ko maanaam bëgg laa jox léegi jëmmi aw yàpp nga jox ko ndundul woolee wala ñu ko aaye ndagam ñoo bokk benn xeet dañu ko aaye bu fekkoon ne bokk benn xeet ni ki dalay jox yàpp gàtt yow nga jox ko ak ganaar wala nga jox ko jën te loxoog loxo li doon fi saari saa nangu nañ ko ndax loolu bokk ñu benn xeet wala bay xataa ni du ceegeenu yaari njëg fii bay xatin ci menn njaay menn njaay nga wax ci yaari njëg kenn jekki-jekki jël ko rek dem te ràññeeluñ ba xam lu mu cay topp ci yaari njëg yi loolu lañu koy aaye ndax kon day mel ni njaay bi fas na xaat te xamuñu ci lu fasoo lu la bëgg a wax nii wa dalika loolee an yestario mooy mu jënd silxatan am marchandise imma bi xam sit benn moo ci juróom naqaran ci teew mi teew aw xasharat wala fukk ilaa jëliñ jëm ci bàpp nga xam ne xat na si mat war na ko bi ahadi tamanayn ci kenn ci yaari njëg ya nee na doonee sama nangam lii sama marchandise mii ku ko nangoo jënd fi saasee saasa ma jaayale ko fukk ku ko nangoo jënd ci kaw weer yu deexee nga fay ma jaayale ko fukk juróom loolu leer na te baax na li ko yàq kay mooy kenn jékki-jékki jël ko rek ci noonu te ràññulum ba xam day ñëw fay fukk fi saasa am day xaar ba weer wi dee mu fay fukk juróom ndax day mel ne kon bu njaay mi dogoo ci noonu rek te xamul luñ ci def day mel ne kon njaay mi dog na te xamul luñ njëkk xam nga dañoo sart dañuy jaayante ñu xam ko xam njëgg lii ne kenn xamagul njëgg fi mu toll bu ne maa ngi dem te ñëw seet ba xam lu ma ci def moom dara nekku ci waaye rek mu dem na njëgg dog na te xamuñu luñ ci def kon day mel ne njaay mi dog na te xamuñu kan njëkk lañ ko jaay loolu ma ko yaayee wala yooyu suñu dagan bay xut tamru jaay tàndarma ba rutta bi jënde ko mbënax ak tamru mooy tàndarma ci ñor ba wow mbënax nag mooy ñor na waaye dafa tooy loolu lañ moo ko wutale dañu bañ jaay lu tooy jënde lu wow ndax dagam dañu war a yemante kenn du mën a xam ba xam lu tooy bu wooyee mu nit lu wow moom xam nañ ko ba noppi ni mu toll waaye la tooy lañ dul xam bés bu wooyee ni mu toll kon jàppal ne du nangu jaay tàndarma joowu jënde ko ci tooy mooy ñu weccee ko duñ ko nangu wala zed yi du caageenu reseñ joowu bi ine bi jënd reseñ ju tooy dalam lee dafa woo moom xam ne ñu toll benn moom daa tooy dañ ko mën a weccee dañ koy tuddee jaayante waaye moo weccee benn la te xamuñu lu tooy bu woowee ni mu toll laa mu taf faa di lan dëggayu lu muy aji ëppalante wala mis lan du mis lan du caagéenn ci kenn kum kenn waaw ndagam lee dafa tooy lee dafa woo moom dañ nangu ñu jaayante ba déedéet boo xam ne mun ko yemale képp la nga koy jox la nga jox yem wala dañuy ëppante ñoo ci yemoo du tax ñu nangu ko wala ratt bi du ci ajoonu jenn aji tooy bi yaay bi sin jëndi ajoo min jëm si ci aw xeetam min saa iri timaari ci mbooleem meññet yi wal fawaak yi ak firiw yi man nga ne mbooleem meññet yi ak xeeti firiw yi la ci xasoo ba nopp ba nga xam ne mu toll kenn du ko mën a wecceeg kenn du ko mën a jaayanteeg la bokkal aw xeet moom te tooy waaw loolu lañ koy aaye ba tax mën a waxoo moom mi maa bokk na ci li nga xam ne loxee tereef na xam waris ko minal mosa banati ngir xabante ga xabante baat wolof la waaye dañ cey jublu jaay lu ñu xam jënd lu ñu réere waxiya bay xuma aloonu bi ma ci foolu loolu lañ ci jublu mooy almusaabana ndax li yow dañ koo xam ba xam ni mu toll bu baax a baax li tooy nag moom ñu umpale ko lool wala yu baaxu dee fu jaay jusaafun ak jal bu ma kii nañ jëndi lu mu nat lim sil fi yi ci xeetam nee na bu loolu doonee wenn xeet ñu waxoon ne daa war a yemoo képp nga bëgg ko caa jox ab jal ab jal mooy loo xam ne kenn nattu ko moom jox la lu mu peese mbaal mu natt ah kooku la waxoon mu ñëwaat mooy jaay lu ñu xam jënd ñu réere ñu natt moom xam ne ñu toll waaye jal bi dañ ko jal de xam ne ñu toll kooku dañ ko waaye wala jusaafun du caagin jaayub jal sax du jusaafun jëndëb jal min sin fi ci aw xeetam illa an yetta bayal mbare bu dafa bir mbare bu dafa leer alfadlu gën ga bay na xumaa seen diggante in kaana ndem nekk na doole ja mën naa du bokk ci la nga xam ne yay joos dina dagan ak tafaadul ëppalante fil jim si ca xeeru alwaahid wa wenn mun ci moom nee na nga jaay ko jal mu jox la jal sax maanaam ngeen weccee ñaari jal sax dañ koy aaye bu fekkee dañuy gam-gamale kan moo ci nax morom mi mu aay bu wóoree ne jal bee moom mu ëpp benn moom tam yaay yoo xam nangu nañ ko ci ëppante ah kon loolu moom du aay waaye bu ñu dee gam-gamlee ku ci ku ci nax sa morom kan moo ci nax sa morom rek mu aay kon xeeti firi yi nga waxoon nangu nañ ci ëppalante kon moom ñaari jal yi bu wóoree ne bee mu ëpp te lu nangu na ëppante kon moom duñ ko aaye waaye bu ñu dee gam-gamlee kan moo ci nax sa morom rek mu daal di aaye wala ba sa aayit bu bay yi ci jaay dara alxaay bu luy aji fàddu xala sifati ci kaw meloo ne nangu nañ loo xam ne teew bi waaw yomb naa dem daal di fa mu nekk léegi bala ñu fa daal fay dem léegi yomb na waaw nangu nañ mu jaay la loo xam ne téewu fi ñu waxantee waaye jóg dem ca léegi yomb na nga xam dara koy melal ci kaw nam mel rek waaw nga jënd ko ci kaw ni waxee ci melo waaye dañu daal jóg léegi dem ca visage waaw loolu moom baax wala yun xod waaye déeful teew njëg nag fii ci moom bu chartin cib sart waaye nag kenn du ci fay visage ay saas waaw kooku du duñ doon fay visage ay saas ba sartee nañ may fay visage boole ci moom mu daal yàqu illa an yaqruba mbare bu dafa jege makaanahu bérébam ba aw yakkoon wala mu nekk min maa di bokk ci la nga xam ne mënu def na loolu taxawiru ko soppikoom nga min daarin moo xam kër la aw ardin wala suuf la aw shajarin wala ay garab la fay joosu kon dana dagan ak naqdu teewal njëkk fii ci moom waaw nee na bu fekkee la ñu jaay te nekk fa dafa boole yaar fa mu nekk soriwut ah dafa doon kenn ci yaar maanaam fa mu nekk soriwut jege na lool mbaa boog xam ne lu yàgg-yàgg moom du soppi ko ndax kër la te kër gaawatu soppi ko wala suuf la wala garab la waaw kon nee dagan na moom ñu teewal ci njëgg kon ñu teewal ci njëgg moom du aaye waaye su boobaa nee nañ kay wax meloo ba mu doon koy jaay bu fekkee ne koy jaay moo wax meloo du dagan waaw buñu ci nee teewal njëg moom kay wax meloo te loolu teewu ko nga doon koo xam ne moom bokk la koy jaay wala fi wax dootu xuuxda xuuxda wala fi firiwuñ ko dara waaye mooy gàddu wala responsabilité jaayisat aji dagan la fi raqiqi ci aw jaam inisturitat dem sarteef na ko aw kaanat wala mu nekk jaariyatam di aji xew bil baladi ci réew ma nee na mën ngeen a jaayante jaam te wut ci xuuxa day ñetti fan xuuxa day ñetti fan mooy gannaaw bu ñu waxaalee ba juróo ñetti fan yi ci topp moom mi jaay moo garanti nga xam ne bu deefoon sax mbaa dara xew ci itam moom rek mooy ñàkk waaye yow ñu jënd yow sa yoon nekk bu ci loolu moom nee na bu ñu ko sartante yéen ñaar ñu jaayante jaam bi baax na bu fekkee loolaa xew ci réew mi ngeen topp ci xew-xew ba it topp ci aada yi baax na fana de tout cela si xoox day ñetti fan ak damaanu gàddu ga fii aa ci moom mënal ba ay tukkee na ci aji jaay ba ñu ko lisee ci bépp mbir nee na xoox dajooju bu ñu ko waxee ba nangu woo muy ñetti fan jaaykat bi moo garanté lu ci xewet ñetti fan ñooñu rek moom moo ñàkk waaye ki jënd moom yàlla nekk ko ci waxana tuttu sanati xoox day at nag mu ne junnoon tukkee na ci ak ndof wala jisaani ak ngaana wala barasi ak siti nangu nañu sax bu fekkee dañu ragal ci jaam ba ak ndof wala ngaana wala siti ngeen def xuxu day at ndax xam nga daa am yoo xam ne day feeñ ci ay jamono te du feeñ ci ay jamono mel ni ndof am na ñoo xam ne bu nawet bi teero rek la leen dal waaw am na ñoo xam ne seen ndof leen di feeñ ci jamono te du leen feeñ ci jamono kon buñu ci ragalee ngaana wala siti wala ak ndof bu leen neexee ngeen jaayante jaam bi ci misaal te àpp ko diirub at bu ci kenn ci yooyu feeñee jaay jaaykat bi moo ko garanti bu at mi matee nag te kenn ci yooyu feeñ ci nag jënd ko ci doora moom bu wér wala ba sa ayat bi salami ci salam kil xoroobi ci xeeti marchandise yi war raqiqi ak jaam ya wal xayawaani ak ndundat wa taxaani ak ñam wal idaami ak randaay bi sifatin ci aw melam ma aloomat noo di nga xam wa ajalin ak ab ma aloomat noo di nga xam salam ñu ko fi yow dara ci wolof waaye salam mooy rek nga jox ko njëg di ko di ko wut loolu nangam loolu rek mooy loolu nga xam ne njëg gi day jiitu te li te li nga bëgg moo tolloo ko amagu ko moom da koy wuti rek moom loolu mooy solo kon nag moo xam la nga bëgg di marchandise ne jamono jaam amal nga bëgg jaam wala bu dee jur nga bëgg wala bu dee ñam wala bu dee la ñu defaree ñam man ngaa seet nga defee ni mën na ko woon bu la jógoo ci njëkk nga fay ko njëkk ko defee moom mu wutal la ko te sàkkal ko dellu sàngam teel la ko indi nga wax na nga ko bëggee ba mu la war a ñu ko bu baax a baax ngeen sàkk itam delloo nga bëgg mu andi la ko ca nga fay ko ne njëg gi moom mu dem mu tël la ko wala ñu wooye salam mooy waxay jëlu te muy gaawe rësal maali capital ba capital bi mooy pay gi rek li nga koy jox muy njëg gi aw axiruhu wala mu koy yeexe ila misli yow may ni ba ci lu tolloog ñaari fan aw salaasat wala ñetti fan nee na fu ñuy waxantee salam bu juboo nag da nga ko war a jox njëgg fa saasa lépp teew wala boog loo ko yéexe yéexe bu weesu ñetti fan waaw wa in kaana ak doonte nekkoon ni bi chartin cib sart doonte da ngaa sart ne ko bala ma koo jox kat na am ñetti fan du ko tee baax bu weesu ñetti fan dañ mooy aay waaye nga nga juboo mu nag juboo ko ko fa saasa nit bu am ñaari fan ba ñett moom dara aayu ci waaw ñoom ñetti fan yi moom boo ko sartoon tam du ko tax aay weesu ñetti fan gi rek moo koy aay wa aja wa ajalu salaam yi digum salaam nag ahab li gën a sopp ilay naa jëm ci loolu maalik an yakkoona mooy mu nekk xam sata xasara def ko juróom yow man ci ay fan soo dégloo ni mu waxee ne li gën a sopp ci loolu maalik mooy diggu salaam bi mat fukki fan ak juróom day mel ne kon du ab sart waaye wax ji gën a wóor te maalika ibnul xaas yi wax ko mooy bu fekkee ne dëkk bi nga ko fayee njëg gi fi la lay joxe lim lay wutal kon dañuy sart faaw àpp salam bi mat fukki fan ak juróom ab sart lay doon ci ñu matal ah délai bi fukki fan ak juróom waaye bu ko yeesee du baax ndax dañoo bëgg marché bi ñëwaat fi ñëwaat fi ko defee sotti bi am ci marché yi bu ko defee li li nga xam ne moom ngay wutlu bu soobee yàlla dina mën a am kon jàppal ne loolu moom ab sart la bu wéewér aw xalaa an yëqu ba wala ci mënee si ci nga de di baladin ci dëkk aaxara beneen wa in kaanat am doonte nekkoon ni masaafatu foo diiram ba
yow may ni di ñaari fan aw salaasatan wala muy ñetti fan foofu nag day bëgg a wax bu fekkee ne dëkk bi ngeen waxantee salam bi maanaam fi nga ko joxe njëg gi ak dëkk ba nga xam ne fa la la war a joxe li nga koy wutloo mooy lim lay jëndal du benn kooku moom nee nañ duñ ci sart mu mat fukki fan juróom waaye nag ci kaw sart yi ñu koy wax sart yi mooy dëkk ba mu la war a joxe li nga koy jëndloo lum néew néew na mat doxub ñaari fan ci yooyu jamono daal dañ koy takk ci lum néew néew na mat doxub ñaari fan loolu benn sart la ci
am la boroom sara bi di wax naa illaa an yuqbada bi baladin ka yawmayni fala yushtaratu nisfu shahri bal yakfi an yakuna al ajlu masaafata ma baynal baladayni maanaam ndegam moom dëkk bi mu la dëkk bi mu koy joxe nam ko warloo ak dëkk bi mu ko joxe njëkk du benn moom te diggante bi yoon yoon yow mat na doxoon ñaari fan ci yooyu jamono ko tax di wax jamono yi ñu taalifi nii soo boobaam nee na bu leen neexee dalee ba gàtte ne biir ba mën a bàyyeekoo ci dëkk bii rek dem ci dëkk boobu laakin bi shurootin waaye nag am nay sart ay yedd xulaa ala qabdihi bi mujarradil wusuuli ilal baladi sart ba ci njëkk mooy nay sartante ne buñ àggee ci dëkk boobu fi saasi rek ñu daal di ko koy jox wa an yakoona ala masaafati yawmayni fa aksara nga boole ci sart ba ñu waxoon léegi ndegam nañ ko bëgg a ñëwaat ñoom sart yi kon diggante bi na mat ñaari dëkk ñi day sorente lu mat taxum ñaari fan baa mu ëpp ko wa an yushtarata fil aqdi al xuroobu fawran te it dañuy sartante kon ñoom ñaar ñu daal di bokk génn dem ci dëkk boobu maanaam ñu daal di bokk rek jóg dem wuti dëkk boobu ndax balaa àpp loo xante raw wa an yakoona safaru fil barri aw fil baxri bi xayri rihin nee na it tukki dana nekk loo mën a takk ñi nga xam nga bu dee tukki suuf moom mënees na koo takk ne bu leen jàmm rek dogee daañu àgg ci diir bi ñu wax bu dee tukki géej itam te nga xam ne lay doxal gaal ga lu ngelaw daañu ko mën a takk waaye xam nga nag bu fekkee ngelaw yi doxal gaal gi moom dees ko mën a takk ndax ngelaw li ci loxo borom bi la nekk lépp sax ci loxo yàlla la nekk waaye nag loolu daal neexut a takk moom وإن انخرم شرط من هذه فلا يصح التأجيل إلا بنصف الشهر فأكثر maanaam sart yi ñu la wax ba ci benn xëttee rek kon ab salam bi na mat fukki fan ak juróom ñu génn wàllu weer mbaa mu ëpp ko waaye du doy rek moo xam ne wees fukki fan ak juróom tasaare nag bu fekkee ne suñ ko joxe jëg gi ak sam lay joxe la nga koy wutloo moom lu benn ni ki yaa ngi ko joxe jëg gi fii waaye mu ngi lay joxe li nga koy wutloo ca Dakaaru ah kooku moom nee na dañoo jàpp ne donte sax doole bi ngeen waxante ñaari fan la mbaa ñett waaye mën ngeen ànd fi dem Dakar rek mu jox la ko foofu am na ci loolu daa jàpp Dakar lool bi am ci sa koy am te foofu la koy joxe waaye suñ ko fee jéggi jàpp na loolu mën naa nekk amoon aslama ku salam la ilaa talaatati ayyaamin jëlut ñetti fan te yàq bi dafay dana ko ñebe it du dalatin ci dëkk aslama bopp salam la nga fii ci moom faxat ajaasufoo daganal na ko ngay riwaayam ku dul kenn mooy salama ay ci way sam ci ci way xam ni وكرهه تسبكو معناه تفسير رك آخرون منهم foofu dafa wax ne bu fekkee da ngeen a jëflante salam bi ñu la wax léegi nga xam ne moom dëkk bi nga ko joxe njëg gi fi la la war a joxe li nga ko wutloo te it délai bi daa gàtt ba toll ci ñett
mu ne kon lu ëpp kenn ci borom xam-xam yi nangu nañ ko waaye ñeneen ñi moom sib googu mu wax sax wakkari xaw ñeneen ñi moom dañ koy firi mooy duñ ko nangu ñooñu wax duñ ko nangu nag ñoom lañ ñoom lañ sukkandikoo ñoom lañ sukkandikoo takk-takk bi daal boo ko bëggee takk mooy da ngay wax ne bu fekkee ne daal dëkk bi nga xam ne fi nga ko joxe njëg gi fi la lay war a joxe moom li nga koy wutloo lu néew néew na mat genn wàll weer fukki fan ak juróom mu mënu koo manqué su fekkee ne nag léegi dëkk ba mu la koy joxe ak dëkk bi nga koy joxe njëg gi moom soree na sorewaay yëpp ci yooyu jamono doxam ñaari fan bu dee suñ jamono ji kon ñu seet ba xam nu war a demee su boobaa moom duñ ci sartante fukki fan ak juróom moom bu ngeen sartante diir bu toll ne mën ngeen a jóge fii dem foofu bu jox la ko rek diir booba taw rek baax na waaye nag ci kaw sart yi ñu la waxoon sart yi ñu la waxoon nag boo ko fàtte juróom la benn ba moo doon la diggante bi dëkk bi ak boobee mat doxof ñaari fan mbaa mu ëpp ko muy benn ñaari bi mooy ngeen juboo ci bay ak bu ngeen di àgg fesaas rek mu dal lay jox loola ñetteel bi mooy ngeen sartante ji ba ngeen ko waxante ni bu ngeen noppee rek da ngeen dal jóg fesaas wuti dëkk booba muy ñett ñeenteel bi mooy na yoon ba ngeen di amoon doon doxof suuf xam naa ñu ko mën a takk ndax bu dee doxof géej moom door juróomeel mooy bu fekkee doxub géej la itam kon lu nekk gaaw goo xam ne lu ngelaw lee koy yëngal muy dem waaw ni mu am moteur boo xam ne moom bu ngelawee mu dem bu ngelawee mu dem waaw juróomi sarte bu ci dajee faaw du ca mën a ñàkk waaye bu ci xasee am nag moom délai ba mën naa gàtt ci kenn rek na ngeen di bàyyi ko ci dëkk yi dem ci wam la koy joxe moo tax sara bi wax naa وكره جيم وقمنا واختلفوا في الكراهة فقيل على التحريم وقيل على التنسيه والراجح ما قدمه من التحديد بنصف الشهر إن كان يقبض في بلد العقد أو ما قرب منها لأنه كلام مالك وابن القاسم وإن كان يقبض ببلد على مسافة كيومين فأكثر فيكفي ما بين البلدين بالشروط المتقدمة وما حدا ذلك من الأقوال ضعيف waaw jàppal ne kon daal li ñu leeral nii rek mooy li nga xam ne moom lañ sukkandiku waxe ci yëpp sooy wàcc ko wala laay joosu lu dagan ay yekkoon bu nekkee rasul maali capital ba min jinsima di bokk ci xeetu la nga xam ne uslima salam leef na fii ci moom maanaam dañuy sart na li nga koy jox muy njëg bu bokk ak la moom lay wutali ah déedéet loolu duñ ko nangu waaw maa li nga koy jox muy njëg ak lam lay wutali benn benn rek duñ ko nangu day aajo faaw ñu wute waaw nit ki doo ko mën a jox aw ñam di ko di ko wutloo ji aw ñam doo ko mën a jox aw fas di ko wutloo ji fas doo ko mën a joxum xar di ko wutloo ji xar nga xam ne moom daal bu fekkee wuute wuñ dara dara li nga ko jox muy njëkk ak lam lay wutali ñoom ñooy ñoo rek amuñu genn wute waaw suba waa du dagan faaw day aajo ñu wute bu ñu wutee nag baax na nit ki bu fekkee da nga koy jox fas woo xam ne dañ koy liggéeyee di ko wutloo ji fasu kursi loolu moom baax na am nangu nañ ko waaye ñu bokk nag moom benn rek la ñu bañ wa moo tax mu ne moo tax mu tekki ne wala yuslamu deeful salamle shay'un dara fii jinsi yi ci aw xeetam ah la ngay salamle ak la nga ko wutloo ñoo bokk wenn xeet dañ koy aaye aw fii maa wala ci loo xam ne yaqru bu dana jege min ci moom wala ci loo xam ne bu rekkee duñ benn xeet tam jegee nañ ba jegee lool lool ba daanaka xaw doon benn wala dañ koy dañ ko dañ ko dañ koy gàntu illa an yaqrudahu mbare bu da koo lebal shay an dara fi misli yi ci am kemam sifatan ci aw melo wa miqdaaran ak cib kem wa nafu te njëriñ la lil mutasallifi ñeel ajleb ja mu ne xanaa kon dañ dañ koy bañ a tuddee salam bu fekkee li nga koy jox ak lam lay indilaat ñooy moo kon buñ ko seetloo te li nga ko jox ak lam lay indilaat ñooy moo ci dayo ab tolluwaay ñooy moo ci melo te itam tuddewu leen ko sal salam dañ ko tudde alxarabu waaw dañ ko tudde alxarabu waaw kon mu baax te itam moom mi nga xam ne mooy lépp mooy ki nga koy jox tam lay indilaat lu toll noonu moo ciy jariñu jàng ñu bañ a disiwaat ci yow mi koy jox loolu bu ci tasee moom ñu nangu ko dañ koy bañ a wooyu salam xanaa woowee ko xarabu ba noppi itam lañ la di dellu ci ki nga xam ne moo joxe te wut lu ji lu mel noonu te lañ koy indil ak lim joxe ñoo yemoo ci melo ñoo yemoo ci tolluwaay su boobaa kon moom des na ko nangul wala yu jiw suñu dagan day nun jaay bor bi day nun jënde bor jaay bor jënde bor siiw na ci fiqu malik moom nag foo ko fekk du mën am ci ñaar dong faaw ñett lay am maanaam mi ngi ne tey nit ameel la bor nga dina jaay bor boobu mais itam li ma lay fayee du ma yëkkati jox la bor bu ma ameel rek ma ne la moom laa lay fayee xam nga day bari xëccoo waaw xam nga diw dalaa ameel bor nga ne ma naa la jaay bor bu ma diw ameel nit am na kóoram wutloo ji am xar muy salam bi ñu weesu woon léegi mu war la koo indi sa gaaw wee ngay ma ko jaay te xam nga moom jotuloo ci bor rek la luñ la ameel rek la mais itam maa ngi la koy fayee ñetti junni yoo xam diw du ma ko ameel rek waaye du ma war la ko jox loolu li ñuy jaay bor la li ñu koy jëndee bor la loolu day indi xëccoo gu bare bare bari moo tax ñu koy aaye wa taxiru rasil maali ak yeexe capital ba bi shartin ànd akub sart ila mahalli salami ba ci digub salam ba aw maa wala loo xam ne baax ma da sore na mi ngal xoqadati ci pas-pas ba min zalika ci loolee xam nga lay daa waxoon ne salam nañu waxoon boo koy def da ngay fay njëgg fi saa sa mbaa loo ko yeexe yeexe bi weesu ñetti fan nee na boo waxante woon moom salam nag ba noppi ne ko bala ma laa jox njëg gi kat bis boobu daa ñëw bis bi nga war a joxe loolu ci daal di joxe njëg gi man li nga ne ko nañ juboo ci wuute nangam ci bisu gaaw bi nga xam ne mooy marché bi waaye bala ma la ko jox nag gaaw bi day ñëw waaw nga xam ne bisu gaaw bi nga ko bi nga ko war a joxe ci nga ko joxe njëg gi wala boog date bi nga ko wax ëpp ñetti fan muy aw maa boo xam dama leen xokk beti min dalika maanaam waxoon ne mën nga koo yeexal moom di ñetti fan waaye nga bëgg koo yeexal lépp ñetti fan loolu itam araam na wala yoo jiw su du dagan fas ku day ñun firee bor fii day ñun ci bor firee bor ci bor mooy itam siiw na ci fiqu malik dañ koy aaye moom la bëgg wax nii moom waxuwa moom firi bor ci bor an yàkkoona mooy mu nekk lakk di la ñeel si um dara fii dimmati yi ci baatam fa taf saxawoo te nga koy firee fii shay in ci dara aaxara leneen laata taxajjaluhu loolu doo ko gaawee daa wax ne firee bor ci bor biñ la ko aayee xamal ne kat mooy lim la amee loon nga bëgg koo soppi leneen lu bokkut ak loola ni ki mu amee loon la ñetti junni nga bëgg mu soppi la ko tiise bassin wala ab rajo wala leneen loo xam ne dina ko jox fi dina ko jox fi saase saasa maanaam day jëm ci ab délai waaw loolu la ñuy tuddee firee bor ci bor mooy itam bokk na ci ñi aaye bu réer wala yu joosu du dagan bay xuma jaay loo xam ne lay saxi ndëkk déet muy nekk teew xala an yekkoona ci kaw mu nekk xaal di aji teew xalay ko war la waaw nee na ba tey bokk na ci li ñu aaye nit ñi la jaay ma nangam ngay waxaale moom ba juboo te fekk na amagoo ko gannaaw bu ngeen waxaale ba juboo nga koy wuti waaye amagoo ko mu ngeen jaay ko daañu ko war a def dañu bëgg bu fekkee amoo ko ngeen def salam bi nga waxoon léegi moom ngeen waxaale ba juboo mu fay la njëg gi moom mu wut délai boo xam ne ci nga ko ci nga koy jox ngeen juboo ci délai waaye nag ngay waxaale moom ne nangam la bëgg ñuy wax meloo ba mu leer ngeen juboo ci njëg mel na fi saa su nga ko war a jox te amoo ko da nga ko wuti rek waaw loolu lañ koy aaye wa isa bi'ta ndem jaay nga sulhatan am marchandise bi samanin ci njëg mu ajalin bu diguñ appal fala tashtariha kon bul ko jëndaat bi aqal la ci njëg gu yées min hu ci moom naq dem ci teewu teew aw ila ajalin wala jëm ci app buunal ajali bi yees àpp ba al awalu ba aji jëkk wala bi ak sala bi ca doon ci njëggu ëpp mun wu ci njëggu njëkk googee bila ab xada jëm ci dele bu gën a sori min ajali bi ci àppam dafa wax ne ne boo jaayee nit marchandise yow joti ku ko jëndaat ci moom dañ koy tomb ay tomb yoo xam ne fukk ñaar lay doon ndax dañuy wax ne boo jaayee marchandise wala joti ku di ko jëndaat benn nga jëndaate ko njëg goo kat mu tolloo mbaa njëg ko wees mbaa njëg ko ëpp mu daal nekk ñett nga daal wëlbati wëlbati ko ne bu ñu koy jëndee njëg goo képp benn nga fay fi saasa saasa mu teew mu teew wala délai bu wees délai booba mbaa délai booba képp mbaa délai bu gën a sori daal nekk ñeent tomb ba tey bu ñu koy jëndaate ci njëg goo wees googu it noonu la benn nga xam ne da ngay fay fi saasay saasa wala ngay fay ci délai bu délai bu yees booba mbaa délai booba képp mbaa délai bu ko gën a sori ba tey it bi nga koy jëndaate njëg goo xam ne daa ëpp njëg nga ko jaaye woon moom it noonu la benn njëg googu nga xam ne moom ngay fayaat tam ëpp booba da nga koy fay fi saasay saasa mbaa da nga koy fay ci délai bu àggul ca délai bu jëkk ba mbaa délai bu jëkk ba dong ca nga koy fay mbaa délai bu gën a sori xam ne loolu boo ko toppee kon ci noonu ñu ko tombe fukki tomb ak ñaar lay doon fukki tomb yeeg ñaar nag boo ko dee seet li ñuy aaye mooy loxo bu njëkk bi joxe lu néew buñ ca tegaatee diir jox ko lu ëpp loola ci wurus mbaa ci xaalis te fekk na moom lam ne moom laa jaayoon fekk na loola ñëwaat ci loxoom ba àggal kon yett yi ci aay moom la borom téere bi wax bi ci jëkk bi ci jëkk mooy misaalum nga jaay ko ab rajo bu jëm ci ab junni mu war laa fay junni bi bu weer wi deexee soo wëlbatikoo jëndaat ko fi saasa ci juróomi téeméer mu delloo la rajo bi nga jox ko juróomi téeméer kon xam nga bu weer wi deexee moom junni la lay jox dañuy jàpp ne kon day mel ne tey jii rek lebal nga ko juróomi téeméer bu weer wi deexee moom mu yokkal la ci juróom muy junni ndax xam nga rajo bi ñëwaat na ci yow loolu mooy benn bi bu ñaareel bi nag mooy nga jaay ko ab rajo ci ab junni ci bu weeru deexee la la war a fay mooy bëtiku jëndaat ko ci moom jënd gu yees goo xam ne yow juróomi téeméer lay doon te bala nga koo jox weer wi xaaj xam nga kon su weer wi xaajee nga jox ko juróomi téeméer du tee bu ñu àggaatee ci weer wi dee rek moom mu jox la ab junni ba tey boo ko dee seet yow mi njëkk a joxe juróomi téeméer nga joxe te ab junni lañ lay jox ci gannaaw ba bi ci mujj nag ci ñett yi nga xam ne moo ci aay ci fukk yooyu ñaar mooy nga ne ko rajo bii de dama la koy jaay bu weer wi deexee nga fay ma junni gannaaw ba ngeen juboo ci loolu nag nga ne ko jaayaat ma ko ci ñaari junni ci kaw nag ñu teg ci weneen weer nga xam ne kon bu weer wi deexee yow moom ab junni la lay jox ndax loola ngeen waxante woon ndax yaa ko jaayoon ci ab junni jëm ci bu weer wi deexee waaye nag buñ ci tegaatee weneen weer yow nga jox ko ñaari junni ndax da nga wëlbati ko jëndaat ko ci moom ci ñaari junni ci kaw nag ñaari weer nga xam ne moom njaay mu njëkk mi daa jëm ci télé bu wenn weer mu wëlbati ko jaayaat la ko ci ñaari junni ci kaw ñaari weer nga xam ne bu weeru njëkk mi matee rek moom mi njëkk a jënd day joxe ab junni di xaar ñu tekki wenn weer nag yow mi njëkk na jaay nga jox ko ñaari junni loolu lépp boo ko dee seet ki njëkk a joxe ab junni la joxe bañ ca tegaatee délai muy weer jox ko ñaari junni yett yi mooy yett yi seetlu yi nga xam ne moom loxo bu njëkk bi joxe na lu néew ba noppi lam doon lu mu doon jaay ñëwaat na ca moom moom mi ko joxe woon te buñ ca tegaatee dee la ñu jox ko lu ëpp loola waaw yett yooyu rek moo ci aaye ci mboot soo ko dee tomb nag tomb yi fukk ak ñaar lay doon ni ma ko waxe woon léegi te itam yomb naa tomb da ngay wax rek ne boo jaayee marchandise di ko jëndaat benn nga jëndi ko ci teew mi teew maanaam benn nga jëndaat ko ci teew mi teew wala ci délai bu yees booba mbaa délai booba képp mbaa délai bu gën a sori kon seetlu nga ne délai yi moom ñeent la ndax mën naa doon maanaam waxtu yi daal lañ bëgg a wax ñeent la ndax mën naa doon teew mi teew mën naa doon ab bu agul ca booba mën naa doon ab booba dong mën naa doon ab bu gën a sori xam nga bu ñu bu doonee ñeenti ab nag maanaam bu doonee ñeenti waxtu te waxtu wu ne njëg nga koy jëndaate itam mën naa doon gu tolloog googa dong mooy ga nga jaaye woon mbaa gu ko yées muy ñaar mbaa gu ko ëpp muy ñett waaw loolu moo ko def ko ñaar ndax negam ñeenti délai ya ñeenti délai la maanaam ñeenti waxtu la te waxtu wu ci nekk njëgg mën naa doon tolloog googa mbaa yées ko mbaa gën koo bari kon njëg yi ñett lay doon ba muy ñeent yoon ndax dalay day ñeent loolu kon tomboon naa ko léegi boo ko seetloo noonu lay doon muy fukki tomb ak ñaar yett yi rek nag moo ci aay te aay gi sax mooy bu fekkee ne moom mi njëkk a joxe maanaam moom mi war a njëkk a joxe day joxe ci waxtu wam war a joxe di néggandiku ñu joxaat ko lu ëpp loola de bu fekkoon ne sax moom mi war a njëkk a joxe du joxe dara dañuy bàyyi noonu rek bu ñu àggee ci délai ba ñu seet bu kii ameelee kii juróomi téeméer kii ameel kii junni fekk xam ne ki ameeloon juróomi téeméer joxewutoon dara léegi ki war ki ko war a jox junni da koy jox rek juróomi téeméer ñu ràkkati ko juróomi téeméer yi ndax ku ne ameel na sama morom juróomi téeméer bu doon lu mel noonu moom ba tey du aay moo tax mu naa wa amma ilal ajali ndaal jëm ci at ba nafsi si jëmi boppam fa daalika loolee kulluhoo léppam jaaisun aji dagan la wa takkoon dina nekk rek mu xaasatan di ak ratalante wala ñu ko wax mu xaasatan di ak ràkkati ko nee na bu jëmoon ci délai ba kese nga xam ne daa jëm ci délai ba rek maanaam bi nga ko jaayee dara mu jëm délai wëlbati ko jëndaat ko ci moom njëg goo ko mën di jëndaatee moo xam daa yem ca googa moo xam da koo yées moo xam da koo ëpp waaye jëmmi délai ba rek moom du soppi ko léegi dama laa jaay téere bi ci ëpp junni mu jëm bu weeru dee wala bu jëndaat ko ci yow lu ma ko jëndaatee ci yow rek bu fekkee weer wi dee ñu waxoon du soppi ko rek moom moo xam lu ma ko jëndaatee ci yow day njëggu toll ne googa mbaa gu ko yées mbaa gu ko ëpp lu ci nekk rek moom baax na xam du ma la jox dara doomu jox dara rek ba weer wi dee su weer wi dee te fekk na li ma jëndaatee ci yow ak la nga ko jëndee ñooyoo kon dañuy ràkkati ko doo ma jox dara du ma la jox dara bu fekkee li ma ko jëndaatee ci yow da ko yées nga jox ma la mu ko ëppee waaye xam nga lépp ci délai bi la bu fekkee li ma ko jëndaatee ci yow daa ëpp nga jox la ba tey la mu ko ëppee loolu la moom lañ wax naa bu dee délai bu njëkk ba délai kese moom du aay waaye ci gàttal sax mën nga ne rek tomb ya nga waxoon rek ñett yee moo ci aay yi ci des yëpp moom du aay wala ba wala ba sa aayut bishira il jusaafi ci jënd ab jal fiima ci la nga xam ne yukkaalu def na ko natt aw yéesaan wala defi ko peese mais luñ daa natt ci aada mbaa ñu koy peese bu la neexee ñu jaay la ci ab jal ab jal bu dee ci wolof xam nga ko bu baax defe naa ab jal mooy loo xam ne dañ ko jal rek noonu waaye kenn peese wu ko kenn nattu ko kenn wàññiwu ko loolu jublu fii ci ab jal waaw maanaam tey ñu jaay la rek pepp muñ jal noonu mbaa gerte guñ jal noonu mbaa leneen ñu kisab muñ jal rek noonu loolu wax ni mënees na ko waaye nag yaayub jal moom daa bari ay sart xam naa daa tombeek fii mu waxu fi sart yooyu rek waaye daa bari ay sart yoo xam ne moom dañ ko ci ay sart daa doy loo nii mu waxee rek si wat danaa niiri ndara ay dinaar wa darahim ak ay dërëm maakaane li fekk nekk na mas kookan di lu ñu sikaal lu ñu sikaal mooy ñu tëgg ko tàmpe ko tàmpe buur bi ba di ko jaayante ci bitig yi ak nit ñi dafa wax ne wurus sa xaalis ma bi ñu ko xasee tàmpe ba nga xam ne moom lañu jëfalante ci diggante nit ñi dootu si mën a jëndub jal faaw ñu wàññi ko njëkk ba xam nu mu toll waaw donc nag tey boo waroon aw kayit yàkkam ci kee tiim wecce rek noonu muy ab jal rek ñu ne nga daal tonn we tonn wecce tonn wecce ba yóbbu bàyyi ko foog kayit wa déedéet danga moom mooy xaalis bi ñuy jaay ko jëndante faaw ñu wàññi ko ba xam ko seet li nga koy bëgg a jox ci aw kayit nu mu demanteeg moom wa amma miqaaru dahabi ndaal sémb mu wurus wal fiddati ak xaalis fa daalika loolee jaayi sun aji dagan la fii maaj ñoom ñaar sémb mi mooy morso yi maanaam dog dog yi di wurus ak xaalis yi nga xam ne moom la tëgg bi xelli di ko tëgg di ci def ay jaaroog ay yeneen takkaay yooyu moom bu la neexee tiim ci ab jal ñu jaay la ko noonu mais su la caa jaay ab jal nga xam ne keneen ñëw kenn defu ko dara waaye bu ñu ko tëggee moom ba tàmpe ko tàmpe gouvernement bi wala nguur ga nga xam ne moom léegi moom lañ jaay ko jëndante faaw ñu wàññi ko du mën a ñàkk walaa yajuusu du dagan shiraa'u raqiiqi jënd ay jaam wa siyaabi ak ay yére jusaafan bir mu dib jal nen loo xam ne ay benn benn am na solo ni ki xam nga bëgg ay jaam benn jaam bu ne am na solo duñ mën a jëkk jëkk rek jaay la coggalub jaam bu doon ñu ne jaam am na ñu ne jaay na ne coggal gi tuga ñuñ ko déedéet faaw ñu def ko ay benn benn seet benn bu ci nekk ndax ne ma ay benn bennam daa gënaante noonu la coggalu xar wala coggalu bi xam nga benn benn benn bu ne am na solo bu baax a baax loolu day aajowoo ñu wàññi ko xool benn bu nekk waaye du mën a jékki-jékki rek jaay la noonu coogal gi xar gi mbaa coogalu béy gi bu dee yére yu am solo mel ne ay tiisi bassin nga tiisi bassin benn tiisi bu ne am na njëriñ kon ñu bëgg a jékki-jékki def ko jël jaay la ko duñ ko nangu day aajo ñu seet tiise yi benn benn xanaa bu dee lu mel ne fukki jaay nag nga xam ne moom day def morso yu bari war te du neex a ñu di ko jaay nag defe naa dina war a nangu ñu yekki jekki jaay la bal bi ah li ma ci xaw a jaaxal rek mooy léegi bal yi defe naa kenn du ko ubbi da ngay tenter chance rek boo jëndee bal lu ci nekk rek nga xam ne bu baaxee baaxal la bu bonee bonal loolu la ma ci xaw a jaaxal wala ma du caagin loo wala ma du caagin loo xam ne bu mu ki mën a jàppati xaddu foo ak wàññeen bila mashaqat ci lu coono jusaafan mbir mu dib jal waaw loolu mu ne wala maa yum ki mu xadduhu xadduhu ak wàññeem mooy ak limam maanaam fi mu toll loolu bokk na ci sarti jal bi ma doon wax xanaa bokk na ci sarti jal bi lépp loo xam ne nii ay benn benn am na njariñ te yomb naa wàññi li nangu ko jaay ci jal maanaam faaw ñu wàññi ko bu dee loo xam ne ay benn benn tax ko amee solo noonu nag mel ni sump ak mango xeet yooyu moom mu ne sa caa jaayub jal waaye loo xam ne ay benn bennam am na njariñ lool te bennam ak moroomam mën na appante njëg lool nit li nga misaali woon ci bu doon ay xar wala ay bëy wala i demee noonu waaw kooku su faaw ñu wàññi ko waaw lépp lu ñu mën a wàññi te su ca sonn rek des koy wàññi njëkk door koo jaay waaye kenn du ko jaay noonu rek ci ab jal waman baax ku jaay naxlan ay tàndarma xat ubbirat yoo xam ne góoraleef na leen fa samaruha kon seen meññet lil bàyyi ñeel na aji jaay ja anaan boo jaayee taati tàndarma garab yi ci boppam fekk ñu góoral leen góoral daa am nañu koy defee dañuy jël ci suufus tàndara bu góor gi def ci bu jigéen gi loolu mooy góoral nee na bu la nit dee jaay ab toolu tàndarma te fekk góoral na meññan ma da ngay leeral ne ko ko jënduma taati kese yi dama ciy bëgg dolli meññan bi bu fekkee leeral loolu dañuy jàpp ne taati képp la la jaay waaye nag waxus ne góoral meññan mi meññan mi bokku ci kon loolu na nga ko leeral bu baax ne ko man jënduma taati kese damay jëndaale meññeen mu ci nekk moo tax mu ne illaa an yastarite woon rek da koo sartaale al mubtaaxu aji jënd ji bu ko aji jënd ji sartaalewul du ca bokk moom meññeen ma bu ko sartaale mu bokk ca wa kazalika naka noonu xuyruha lu dul tàndarma mu ne simaar yi ci meññeet yi mboolem yi garab yi meññ nee na ñooy moo bu fekkee xas na meññ ba ku xool seen meññeen ma loolu mooy ak góoralam bu dee tàndarma am nañ ko góoral waaye bu dee ci des moom nit ki bu dee darkase wala yooyu wala reseñ ba saytoon moom du meññan ba fisee rek ku ko xool ne ko jàkk rek boo bëggee mbokk ci njënd ma da nga koy leeral ne ko jënduma taati kese meññan ma ci la ci laa koy boole ci njënd mi bu ngeen juboo ci bu dul loolu dañuy jàpp ne taati kese la la jaay waaye meññan mi bokku ci wal ibaaru baatu ibaar nag ak tadkiir mooy góoral xat ubbi rek jéem waxoon bu dee ci làmmiñu arab day xaw a jafe moom la firil nag naa la ak góoral lañ lañ firi moom la baat boobu firi wa ibaadu zahi góoralu mbay xoroojuhoo mooy ak génnam ñu arda ci suuf nee na bu dee mbay mel ne suuna ak saañu ak gerte yooyu ku ne lee ak góoralam mooy mu sax ba mën koo seen maanaam bu la nit dee jaay suuf soo xam ne fekk na mu ji ci dara ba mu sax ci bitti ba boo xoolee seen ne lee sax na boo bëggee loolu sax bokk ci da nga koy leeral ne ko jënd ma suuf kese lee sax itam ci laa ko boole ndax dañuy jàpp ne ba mu saxee ba génn rek góoral nañ ko boo bëggee mbokk ci faaw nga waxaale ko boo ko waxaalee ne ko ci la bokk dañuy jàpp ne suuf si la la jaay waaye li sax ci kaw moo ko moom bu fekkee da ko faraasu rek waaye saxagul nag wala mu tex ko wala mu ji ko noonu ci tooyaay bi waaye saxagul moom boo jëndee suuf si rek yaa moom la ca biir ndax moom génn bi ci biti saxawut waaye bu ko see sax moom bi mu ngi ko seen faaw nga leeral ne ci laa ko boole bu loolu du ci bokk wamun baax ku jaay xabdan ab jaam wala xoo te ñeel ko maalun alal fa maaluhu alalam ja lil baaxi ñeel na aji jaay ja illaa an yastaritoon rek da koo sartaale al mubtaaw aji jënd ja nee na jamono yi jaam amee boo dee jënd jaamum nit te bëgg caa boole alalu jaam ba da nga koy leeral ne ko jënduma jaamum kese alalam ci la bokk waaye bu fekkee waxoo loolu bu la ko jaayee ba noppi dañuy jàpp ne wéer yi muy liggéey rek mooy ànd ak moom ñëw dana ko jaay rek mooy wéer yi muy liggéey waaye alalam bokku ci kon boo ko sartaale ne ko alalam ci la nag kon alalam ci la bokk wala basa ayut bishra ima ci jënd loo xam ne fil idli nekk na ci mbuus ki wax mbuus rek waaye paquet ak yooyu itam ci la xalal barnaami ji ci kaw mbind ma wala ci kaw programme ba bi sifatin ci aw melo maalumat ni ko di nga xam nee na mën nañ laa jaay loo xam ne dañ koo fas ci mbuus wala ñu paqueté ko ci paquet xam ne su ko tàjji dañuy bind ci kaw rek ne nangam moo ci nekk su fekkee nañ ko melale ci mbind ma bëgg nga ko nga waxaale ko jënd ko soo ko tàjjee tànnal noonu moom doo sañ a xàcc ndax na nga jàngoon ne moo lañ ci moo ci nekk ci biir moo ci nekk nga waxaale ko ba jënd ko soo ko tàjjee nag bokkut ak nañ melale woon nag kon bu la neexee wéy ci njënd ma bu la neexee bàyyi loolu nag bàyyi bari na ci njaayi tubaab yi yoo xam ne da nga koy jënd ba noppi dara koo tàjji yu wax rek ci kaw bind ci kaw ne nangam moo ciy nekk loolu nag nangu nañ ko wala yajuusu du dagan shiraau tawbin jënd am malaan laa yoon charu moom defu ko tàllal wala yoon safu te defu ko melal nen dañuy aaye ñu jaay la tiis yi boo xam ne desu ko tàllal ba xam ne mel kon day mën a jaay lu ñu xamut day aajowoo bu dee tiis yi ñu tàllal ko bu amee dafa ñu xam ko waaye desu ko lem rek noonu daal di jaay aw fii laylin wala ci guddi muzlimin guy aju lëndëm nga xam ne laa yata amalaanihi déet ñu koy seetantal ñoom ñaar wala yaarifaan te duñu xam maa la nga xam ne fii nekk na ci moom noonu itam bu fekkee dañuy jaay tiise ba ci guddi koo xam dafa lëndëm nga xam ne bu amee dafa itam kenn du ko xam loolu du baax te aajo mu ci bëccëg mbaa bu dee guddi gi mu leer am làmp bu leer wala leneen lu ko leeral ba nga xam ne lépp lu cay defa ñu mën koo xam waga daalika naka noonu ak daabatu daaba fii lay liñ ci guddi module min koy aju lëndëm ba tey dañuy bañ dañuy bañ ko jaay daaba noonu ci guddi gu lëndëm kooku mosu ko gis moom ñu jënd ci guddi gi noonu mënta xam lu cay defoo mu daal di koy jënd rek noonu déedéet loolu lañ koy aaya wala wesu mu du waxaale ahadun kenn xalaa saw mi axiihi ci kaw waxaale wu mokkam wa daalika loolee nag ida rakkanaa mooy bu ñu jàngantee ci wax wa taqaarabaa te jegeente ci jëf di laa fi awali tasaawumi du caagéenu ca njëlbeenu waxaale wa nee na bu sa mbokkum jullit de waxaale ci dara ba sori ci waxaale wa yow jamono araam na nga wax ca nit nga yokk njëg nga bëgg mu jaay la ko bàyyi kooka te bu xas na waxaale ba sori ci waxaale bi da ngay bàyyi rek bu jëndul na yow nga dooru dugg moo tax mu ne ne bu ñëwee ne ba jàngante ba jegante ci wax nga xam ne àgg nañ ci daal benn jubóo mbaa ñàkk a jubóo boobu lay araam mais bu fekkee daa agsi rek tàmbalee xool ak wax naa loolu muy jar ak waxaale waaye soreegul ci waxaale wa yow itam bu la neexee dala dugg ci waxaale wa waaye bu ci xasee sori nag moom doo ci sañ a waxati loolu dafa bàyyi wal bay xu jaay yan xaqidu dana fasoo bil kalaami ci wax wa in lam yaftariq ak doonte teqalikoowut al mutabayihaani ñaari way jaayante dafa wax ne ñaari ñuy jaayante lu ñu waxante mbaa ñu defante ko ba ñu xam ne kenn ku nekk juboo nga ci li ñu wax rek kenn ku nekk juboo nga ci njaay mi rek dal nay baax mën naa doon ci wax nit nga ne ko lii loo koy jaayee mu ne nangam laa koy jaay nga ne ko loolu de fay naa la ko mbaa ngeen jàll waxaale ba juboo mën naa am sax ci jëflante kese goo xam ne kenn waxul benn baat ne ki nga ñëw rek xam ne ambulon mi ngi jar nangami dërëm daal fee teg dërëm yi toll noonu teggi benn ambulon dem mu lay seen moom mi jaay waxu waxut waaye wane na ne yéen ñëpp juboo ngeen ndax xam fekk nga fekkoon na nga xam ne abuloo nangam lay jar te nga fa lu toll noonu yëkkati abuloo mu lay seen lu mu ne nag doonte ñoom ñaar teqali ko woon day wane ne bu ñu xasee waxante ba jàpp ne juboo nañ te ñu yaar yi bu kàllaf yoo xam ne ku ne sañ naa wéyal la mu def yooyu jamono ku bëgg a jékki-jékki génn ci njaayante ma doo ko sañ xanaa bu sa morom nangoo rek waaw waaye bu ñu xasee waxante njaay ba juboo ci moom njaay mi fasu na ku ci bëgg a bàyyi de aajo moroom mu nangu ko bàyyil ndegam kooka ñaar ñu ko jëflante ay mukallaf lañu te sañ nañoo def la ñu def waaye nag bu fekkoon ne kooka day ku mel ne gone li ñu def xam na ko jënd nañ ñu ba noppi itam taxul na njaay ma nekk lu war ndax bu kilifaam liggéey bu ko neexee tebbi ko loolu moo tax léeg-léeg njaay dana war maanaam njaay dana wér dafi te du war boole ci bu fekkee ne ñaari mukallaf ñu sañ a def la ñu def moom ñoo ko defante moom te aw ci yoon kon wér ne te war na waaye nag bu fekkoon ne tey kooku day gone koo xam ne xàmme na nii waaye yoru mbiru boppam kooku njaay ma mën naa wér nii waaye taxul muy lu war ndax bu neexee kilifa bu dikkee teg bi ko wal ijaaratu yooloo yooloo mooy defuloo nit fay ko jaayisatun aju dagan la isaa darabaa ndeem sadd nañu sadd mooy sàkk laxaa ñeel ko ajalan àpp wasamayaate ñu tudd asamana njëgg njëgg mooy pay ga mu ne defloo nit dara fay ko nangu nañ ko ba bu aajowoo ñu àppal ko da nga koy wutal àpp niki bu fekkee da nga koy jaayloo kon mën nga wut àpp niki mu la par weer nga koy fay wala par ma ñetti weer moom loolu bu bu aajoo àpp daal na nga wut àpp boo xam day leer boo ko dee sàmmloo boo ko dee sàmmloo te ñu koy takk ci weer baax na bu ñu ko dee takk ci ñaari weer bu ñu koy takk ci at baax na waaye moom daal bu aajoo àpp rek ñu sàkk àpp bu leer a leer te wax itam pay ga ñuy fay bu dee loo xam ne jëru ko nag niki da nga koy ñawloo tiisi rek bu fekkee jarul app kon mën ngeen a juboo rek ci saa yu ñëwee ba àggal li ngeen waxante ci pay te ngeen juboo ci nga fay ko ko bu dee tabax it noonu bu leen neexee dañ ko wutal app ci li nga koy tabaxloo ba àggi rek nga fay ko waaye lam ci mën doon moom nañ tudd njëgg ba mu leer wala yóbbare bu deful sadd fil joxuli ci joxal ajalun ab app fi raddi aadixin ci delloo jàmbu dow aw ba'irin wala gëléem chaarin nguy aji dàngam aw xafri biirin wala gas ab teen aw bayxi sawbin wala jaay malaan wala xëyi ak lu mu roog moom wala chey ate di dara loxo di ko ñeel illaa bi tamaamin xamali ndara ci matu jëf ja juxal ab neexal la baat bi firi waaye li ci julli mooy nga di ko def looloo xam ne xëy na mu sotti xëy na mu bañ a sotti ci loxol yàlla la nekk xamuñ ci dara nga sàkkal ko àpp ne ko nag li fekk àpp sàngam moom bu fi sottee dinaa la jox nangam waaye bu fi sottee moom li nga sonnoon lépp da nga koy ñàkk te doo mën a jàll it ca loola ni ki danga am ni ki danga am sa jaam bu daw jamonoy jaam amee wala jamono yi réer li xew na am loo réer li nga ne ko dama koy seetali bu fekkee li fekk gaaw bi di ñëw gis nga ko fi naa la jox nangami junni waaye nag lu weesu gaaw moom jeex na boo gisee itam du la jox dara loolu du baax lay baax rek mooy nga ne ko demal seet rek saa yu feeñee dinaa la jox nangam te bañ ko takk ci gaaw ak dara xam ne moom mooy dama dem rek ba sonn bàyyi waaye sakkaloo ko woon ab ab bi rek ko yàq moom bu doon génneem ko teen jë noonu la boo ko doon gasloo teen it ne ko saa yu teen bi bënnee rek mu fay la nangam nga xam ne moom mooy gas rek ba keroog muy bënn mbaa mu tàyyil bàyyi waaye yu sakkaloo ko benn ab ba tey mu baax waaye boo ko sakkalee ab rek mu daal yàqu boo ko ne jaayal ma tiise bi mbaa rajo bi mbaa xar mi su jaree dinaa la jox nangam boo ko àppee ci rek bu jaree tey ci gaaw bi dong yem ci du baax ndax kon day sonn ci gaaw bi di wëreelu ba sonn yem ci bisoo du am dara ñëw delloo la ko waaye boo nekk saa yu jaree rek nga xam ne mooy dem ba sonn bàyyi mbaa mu jar mu ñëw nga jox ko loolu rek moom baax na wal ajjiru bàjj bàjj ba toolof la muy employé xalal bay ci jaay ga isa tam ne mat na al ajalu àpp wa wala mu yóbbu te jaayut it wajaba kon war la wóññeel ko jamiihul ajri mboolem pay ga nee na boo ko wutee ne ko danga may jaayal ma fay la rek nga nga ubbi bitig teg fa kenn ne ko danga may jaayal bu wari dee ma fay la nangam kooku nee na moom bu àpp matee rek faaw nga fay ko li ngeen waxante woon donte jaayul dara maanaam soqi ko wut ni ko wala fi waxee itam du tey nga fay ko li nga ko war a fay ndax moom la mën rek mooy wane njaay ma ak lik mu waxaale yow waaye tey ma jaral na moom loolu mënu ko ci loxol yàlla la nekk wa in baax ndeem jaay na fii nisfil ajali ci genn wàllu àpp ko waaye dem na ba xaajal ko nit ngeen waxante woon weer nga koy jaayal bitig nga fay ko juróom benn junni kon bu jaayee genn wàllu weer lu ñaari ay bis te ngeen di yem foofa kon nañ koy wax ñetti junni waaw ndax kon jaay na genn wàllu àpp kon nga fay ko genn wàllu la nga ko war a fay wal kiraa u luyaas kal bay mi ngi mel ni ki jaay fiima ca la nga xam ne yaxil la dana dagan wa yaxarum ak lay araam luyaas mooy lu mel ne luye kër wala oto wala fas wala leneen kooku nee na moom jaay ñooy amoo ci la cay dagan ak la cay araam lu ñu waxoon ne araam na ci jaay ni ki ñàkk xam dara ca loola umpale ci dara mbaa ñàkk xam àpp wo fii lañ fii loolu lañ fi wax te aajo boo dee luye dara ñu xam li ngay luye lan la bu aajo ba àpp ñu xam àpp wo ñu ki bu dee kër da ngay luye par weer ñu xam ne bu ngay luye bu dee at ñu xam ko xam itam lan la la war a fay ci weer wu ne wala ci at mu ne loolu lépp dafa war a leer waaye buñ ci umpalee dara rek mu daal di araam moom araame woon ci waaye dañu xam àpp ba nañ xam pay ba buñ ci umpalee dara wa ma nekk taraa ku luye daab batan daaba bi xëy ni xaa ci jëmmam danga ko ràññeel ilaa baledin jëm ci dëkk famaatat te mu dee moom daaba ba in fasaxa kon firiku na alkiraa uliyaas ba fii maa ca la nga xam ne baqee des na nee na boo nee ko luyee ma daaba sàngam néew ko rek luyee ma daaba da nga ko luyee ma fas sàngam mbaa mbaam sàngam nga dem ci darul mën naan kon nee na da ngay dem ba ci yoon wi ni ki mu dem ba faas rek fas woo wala daaba ja du mën doon daal di dee kon foofa la luyaas bi yem mooy dañuy seet fi fekk faas rek nga fay ko loolu waaye du la mën a joxaat weneen fas wala weneen daam nga àgg ci daaru manaan gi ñu waxoon ngir nga fay ko lépp léppi pay nga déedéet ràññal gi mu ko ràññee da tax kon fu daaba ja dee rek mën kilomètre rek foofu la luyaas ba yem daañu wax ne bu fekkee ràññee luñ ko ba gazaalika naka noonu al ajru bàjj yemootu mbir moom dana faatu ba tey boo jëloon kenn employé di ko liggéeyloo di ko fay kooku nee na fu mu yem ci liggéey bi rek farfaatu bu fekkee liggéey bi àggut mu farfaatu mbokkam du mën a ñëw ne daa koy àggale te mu fay nu lépp luñ ko waroon a fay déedéet ba ci boo jëloon kenn di ko liggéey di ko jaayloo ci bitig mu jëm weer mu jaay ay fan farfaatu dañuy seet li mu jot a jaay rek ñu fay koy mbokkam waaye ay mbokkam duñ mën a indi rakkam mbaa magam mbaa keneen ne da koy àggale day àggale weer wi te ndox nu luñ ko waroon a fay lépp waddaaru ak kër ga tan xadima mbir moom dafa màbbu xabla tamaami muddatil kiraay ci njëkk matu diirub luyaas ba ba tey nee na boo luyewoon kër laata diirub luyaas bi jeex far kër ga màbbu ñu daanu mbaa mu lakk ba tey du la mën a joxaat geneen kër ngir nga àggale ca diir booba déedéet dañuy seet la nga jot dëkk rek nga fay ko ko bu ngeen dee luyewaat geneen ngeen luyee luye bu yees waaye nag du la mën a joxaat geneen moom ngir nga àggalee ca diir booba wala bu asa ayut bi taalimil muallimi ci jàngalek aji jàngale alquraan alquraan xaalal xisaaqi ci sart ñaw ga ñaw ga nag mën naa nekk mokkal ga mën naa nekk mokkal ga nangami isib wala ab xaaj wala lu ci jubóo rek dafa wax ne daal yow mi jàngale dagan na nga jubóo nit ci jàngal ko alquraan moom ci boppam mbaa doomam mbaa keneenam ci kaw bu tolloo ci nangam mu fay la nangam dikk bu demee bu mokkal alquraan mu fay la nangam wala su demee ba fer iji mu fay la nangam wala su demee bu mokkal ñaari isib wala téere suuf leen ci jubóo rek baax na wa musharatati tabibi ak sartante docteur ba xalal bur ci wér ga ba tey dagan na nga fekk ku mën a faj nga jubóo ci mu lay faj ba kera ngay wér boo wéree fay ko nangam waaye yow ne yaay jënd garab yi moom du ma lay jox garab yi te moom ma lay jox garab yi yow yaay jënd garab yi moom xam-xam bi rek ak wax la la ngay jënd rek lay def su ko defee boo wéree nag fay ko nangam su fekkee wéroo doo ko jox dara wala yantaqibu bi firiku alkiraau luyaas ba bi mawtil raaki bi ci deexub aji war ja awi saakin wala aji dëkke ja xam nga la nga waxan fee dangaa luye woon daaba dem ba ci yoon ba te fekk nga ràññaloon daaba ja dem ba ci yoon ba daaba ja dee mu ne woon foofu la luyaas bi mën a yem li muy wax nag tey mooy ka war daaba ji ci bopp mu faatu waaye daaba ji moom faatuwut su boobaam nee na bu leen neexee luyaas ba mën naa bañ a tebbiku waaw luyaas ba kon du tebbiku bu leen neexee keneen ñu àggale moom waaw keneen ñu àggale daaba ja fañ jëmoon dañ fay luyaas bu njëkk bu ñu waxante woon ak ki faatu kër ga it lam ci waxoon mooy jëmmi kër ga ci bopp moom moomaa bu mbaam lakk ñu wax ñu ne mooy jëmmi ko dëkki woon kër ga mooy ko ku luyee woon moom faatu kon bu neexee ak njabootam ñu far wéyee di toog rek waaw bu neexee njabootam ñu toog noonu day wéy ba luyaas ba ba diir ba mat ñu fay luyaas ba mat moom itam ndax léegi ku luyee woon kër gi moo faatu waaye jëmmi kër gi ci bopp mu yàquwut kon luyaas ba du dog du dog mën naa wéy rek da wéy rek ba ca àpp ko defee ñu fay lañu war a fay rek wala bi mawti xanam nit wi aayati du caagéenu ci deexu gàtti càmm ga wala yi atti na dikki rek bi misliha ci kem gàtt woowe nee na boo ko joxoon li mu gàtt ne ko dama koy sàmmal bu weer wi deexee wala bu at mi deexee mu fay la nangam muy sàmm ba yàgg am gàtt wi ca dee waaye moom sàmm bi ci boppam deexut gàtt yi ci bopp moo amu ca dee wala yëpp dee mu ne kon tam luyaas ba du yàqu maanaam la ngeen waxante woon du yàqu da nga koy joxaat gàtt yu toll noonu rek yooyu ba ca dele booba ko defee nga fay ko la ngeen waxante woon loolu nag dañ ko xaw a diisal ñun ñu ngi ko waxee ndax dañoo wax ne moom bu fekkee mënu ko joxaat yeneen gàtt da nga koy fay pay gu mat loolu nag mel na ak jafel la wama nikk tara kullee kiraan ab luyaas mat moo noonu ba diguñu waralu fama tëj te dee ab daabatu daaba ja fali ati kon na dikkee bi xëy ri xaaj judul moom nee na bu fekkee da ngaa luyee woon luyee boo xam ne ràññeeloo ko dikki da nga ko ne woon ab lu lu yema aw fas rek ma dem ci daarul manaan wala ci maxa waaye néewoo ko fas sàngam wala néewoo ko mbaam sàngam wala bu dee oto itam oto moo xew léegi da nga ko lu yema oto rek waaye néewoo ko oto sàngam waaw kon nee na moom suñu demoon ba ci yoon yi daaba jodee wala oto ba paan mënta demati itam du tey mën laa joxaat beneen ko defee nga wéy ba fi nga wéy ba fi nga bëgg a àgg fay ko lu wees mat fay ko njëg yi waxante woon bu fekkee dañ ko ràññoon waxoon na ko moom fan mi fan yem rek foofu la yem nga fay ko loolu waaye du nga mën a jàll doo ko mën a joxaat jeneen wa in maata ndem deena arraakibu aji war ja lam yoon fasix kon du firiku alkiraayu luyaas ba wala yegtaroo nañu luyaas makaanahoo ci palaasam xayrahoo ku moom loolu ak daam rek la waaye waxoon na ko léegi daa waxoon ne bu fekkee jëmmi daaba ja wala jëmmi oto ba ci boppam daaba ji deewut oto ba ci boppam te bañ ko ràññeelee du moom moo paan muy oto ba wala daaba ja dee déedéet jëmmi ka ko waroon ci boppam rek ku luy woon te waroon ko rek moo faatu kon moom du yàq dara ci luyaas ba keneen da koy àggale fañ jëmoon rek te waa ji moom borom oto bi mbaa borom fas yi fay ko pay bu mat wala ma nikk taraa kullee maaxoonan njëfandikookaay aw xëy aw xëy rek wala lu moom wala damaana deetu gàddu xale yi di ko war fii xalaat kii ci alkoom nga bee di ci loxoom nee na boo luyee loo xam ne dañ koy jëfandikoo rek lu njëriñu kër ni ki cin lu ñu toggee wala sémmiñ wu ñu xare wala tame ba ñu layee wala ab indee wala yu demee noonu nga xam daal jëfandikookaay la nee na yooyu bu fekkee danga ko luyee mu yàqu ci say loxo ci loo xam ne coobare yàlla waaye du sa càggante kon da nga xam ne yàllaa ko dogal rek tax ñu la tax ñu loo xam ne fayal borom da nga xam ne dogalu yàlla ñëw rek te waxuwa moom mu saddaqun ku ñu dëgalal la te la nga ca wax des koy gëm ndax ki la wóolu ba luyee woon la daa mel ni kon wóolu woon na la wéer wéer kon nag la nga ca wax moom la ñuy jàpp ba gis lu ko tebbi nag xanaa bu ñaawee ci moom ci moom njort rek bu ñu ko tuumaalee rek bu ñaawee ci moom njort rek giñloo ko waaye moom bu ñaawee ci moom njort kenn du ko ci waat loolu sax illaa an yatabayyana ndara bu dafa bir kadibuhu fenam la lu may nag daa leer nañ ne li ñu wax mënta nekk ni ki moom dañ koo liye woon cin gaaw bi ne mu ciy togg mu daal di wax ne nag cin la dafa lakk ñu ne ko kañ mu ne gaaw bu njëkk ci weer yi am seere yu xam yu leer leer ne moom bu weer yi amee ñaar fukki fan di gaaw rek gis nañ ko mu ci togg te moom mu wax ne ma nga lakk ma nga ci laa ngi tàkkoon ba jeex ca ba weer wi teru loolu mënta nekk waaw saa yoo xam ne wér na ne li wax amul rek moom day fay moom boobaa loolu jamono day fay wasum naaxu ubar yi ubar yi mooy nit yi xarala yi baamu noona way gàddu lañu limaa ñeel la nga xam ne xaaboo mën nañoo njublam xale yi ci moom ame loolu moo xam liggéey nañu ko di ajurin ci pay aw di xëy di ajurin wala ci lu pay nee na ñu amul xarala ubbi seen atelier ñu leen di jox ñuy defar di fay ñu leen di fay daanaka dañoo maase ci xaw a ñàkk solo maanaam xaw a ñàkku xaw a ñàkku jub waaw ni ki tëgg yeeg wuude yeeg ba ci ñawkat yi ci lañ ñoom ñëpp ne nañ ku ci jox dara la ko lefeloo la ko defarloo fa sa atelier moo xam na nga koy defal ngir yàlla moo xam ne la la caa war lu pay bu dee lu ñu mën a njublan rek bu dee borom laajee nga ne ko nangam ñu la fayal ñu ne ko fayal ñu ne ko fayal borom waaw dama leen jàpp ñoom daanaka du du nekk ñu am diine ñu am qualité li ci ëpp daal li ci bare bare ci ñoom waaw moo tax nag ko ci xam ne ñu ngi lay liggéey loo dara lu ñu mën a njublan gannaaw boo layee rek ñu la fayal borom donte sax doon luñ koy fay dara moom daloon la koy defal ngir yàlla te ñu fayloo ko wala damaana deetu gàddu nag xalaa saaxibil xammaami di war borom bayti xammaam bayti xammaam mooy ab sanguwaay ab sangukaay salle de bain naam bu fekkee kooku dafa ubbi salle de bain ku ñëw sang rek fay ko ku ñëw nag nee na ñu sàcc fi sa yére mbaa sa yëf doo wax borom sangukaay bi ne ko yaa ngi fay am na ñu wax ne bu fekkee dafa sàggan moom dina fay ni kii dangaa summi sa yére xool nag nit di ko sol mu defee ne yow gannaaw bi nga ne ko amee sama yére bi tegoon fi mu la am kon defoon naa sin naa ñu ko sol waaye defoon naa yow loolu loolu ak càggante lañ koy jàppee dañ koy wax ne kon lay fayal yére yooyu wala damaa jiitu gàddu xala saaxibi safinati di war borom gaal waaw nee na ki nga xam ne moo amee gaal wala saxaar wala oto wala avion ñooy moom su fekkee accident da ca am boo xam ne dogalu yàlla nekk ngelaw ko waral wala duus géej gi ko waral wala lu ci doon def tam normal moo ko waral loolu kon kenn du ko wax ne ko war la yaa ci fay nangam waaw dara du ko ci war wala kiraatu diitub lu yaasit loxoo di ko ñeel ilaa xalal balaax dara ca àgg ba waaye ñu neen warus koo fay te eggu te eggu leen fa ngeen jëm ndax boo duggee oto wala saxaar wala yooyu bala ngaa war a fay dangaa war a dem ba àgg rek su la yóbboo fa nga xam ne fa la jëm rek nga war koo fay nag wala bu asa ayut bi sharikati ci bokkaale ay société bi abdaani ci ay yaram ida xamila ndéem liggéey nañu fi mawdihin ci béréb waaxidan bu di benn xamalan liggéey waaxidan bu di benn aw mutaqaariban wala bi aji jegante nee na mën ngeen ne société ci daan seen doole bu ngeen bokkee di maçon wala ngeen di ñawkat wala ngeen di bindkat ci ay xalima moom daal lu ngeen mën di bokk ci ab liggéey rek bu leen neexee société ci maanaam ubbi ci atelier bokk liggéey lu ngeen ci am seddoo di bokk liggéey ba di bokk la ci am ci njëriñ mën naa doon liggéey mën ngeen a bokk benn liggéey seen liggéey mën naa jegante léegi bu fekkee kii dafa xam faj kii xam moom liggéey kii xam liggéeyu pharmacie waaw loolu mën ngeen a jegeene ñoom ñaar bu fekkee ci ñi daan doole la xam ne kii bay sàkketa ka yooyu kii moom di wuti gattax ga ñuy sàkketa yooyu ba tey loolu lu jegeen la yëpp mën nañoo ànd def benn métier daan seen doole luñ ci am rek bokk seddoo mu tajwees dina dagan asharikatu bokkaale muy société bil amwaali ci alal ya xalaa an yakoona ci kaw bu nekkee arrek bu bénéfice ba baynahuma ci seen diggante fi xadrimaa ci kem la nga xam ne axraja génn na ko kullu waahidin kenn ku ne minhuma ci ñoom ñaar nee na mënees naa société ci alal société ci alal nag mooy kenn ku ne génne capital ñu boole capital yi di ci waxantu mooy di ci liggéey di ci jaay ko jënd suñu àggee ci rek la nag bénéfice kenn ku nekk la tolloog la joxe woon ci capital man nga am ca bénéfice ba waaye liggéey bi noonu la wala xamalu liggéey ba xale yi war na ci ñoom ñaar di xadrinaa ci kem li nga xam ne charata sart nañu ko ñu rëpp ci bénéfice ba li ku li waax di ñeel kenn ku ne ba tey liggéey bi noonu la war a appante maanaam ci ci misaal boo joxe woon tey benn million moom mu joxe ñaari million kon liggéey bi moo moom mu joxe ñaari million bu ko def ñetti xaaj moo war a liggéey ñaari xaaj ñi ki joxe benn million liggéey benn xaaj ba su ko defee bu ñu àggee ci seddoo bénéfice tam bu ñu defee bénéfice bi ñetti xaaj ki joxe woon ñaari million liggéey ñaari xaaju liggéey bi moo war a moom ñaari xaaju bénéfice bi ki joxe woon benn million liggéeyoon benn xaaj ci ñetti xaaj yi ba tey loolu mooy moom benn xaaj ba ci bénéfice ba noonu rek lay demee walaa yajoosu di dagan ay yaxtalifa mu wóote rasul maali capital ba wa yastawiyaa te ñu yemoo fi ribxi ci bénéfice ba dañuy aaye nag nee na capital bi yemoowut ñu sart ne capital bi di yemoo te bu ñu àggee ci bénéfice ba noo ca yemoo nekk ni waxoon lay kee joxe ñaari million kee joxe benn million te ñu sart ne bu ñu ci àggee bay séddoo dañu séddoo ci digg ba rek waaw loolu moom dañ ko nangu wal xiraadu xiraad jaa isun aji dagan la xiraad wala fi waxuñu ko dara ci am prix waaye mooy nga jox nit capital mu dem liggéey ji maanaam mu dem commerce ji su ci àggee su àggee nag ci ngeen réglé nga génne sa capital yow ngeen séddoo bénéfice ba dama wax séddoo rek waaye na ngeen ci juboo rek baax na bu ngeen juboo ci séddoo bénéfice bi ci digg bi baax na bu ngeen jublu bu ngeen juboo ci kee amub kaar kee moom la ca des baax na bu ngeen juboo ci ñoo ko ñetti xaaj kee moom ceer kee moom ñaari ceer ñu baax na mu daal na ngeen juboo ci bénéfice ba rek baax na waaye nag biddanaa yi ci ay dinaar wa daraa yi ak i daram waaye capital bi nga koy jox day doon wur sa xaalis bi nga xam ne moom lañu tàmpe ba di ko jaayee ko jëndantee ci dëkk bi waaw doo ko doo ko mën a dañu ko leeral léegi du nekk marchandise te aajowoo muy wur mbaa xaalis te doon ba nga xam ne moom la ñuy jëflantee ci biir nit ñi ndax def na tàmpe ngóor gi waxat urxi sa yàlla ma leef na fii ci moom duñu xaari dexe bi ci seen bu wurus wal fiddati ak xaalis teewoon na ñu def ci ak jàppandal maanaam bu fekkee loolu mi ngi koy jox wurus la mbaa xaalis boo xam ne ay morso la ma morso yi ñu xellu ci tëgg yi di ko def takaay koy dutee loolu ñu def ci jàppandal ah loolu daal maye nañ ko dëgg la bokkut ak xaalis bi ñuy jaayee ko jëflantee jaay bi ñuy jaayee ko jëndantee ci biti yi ak ñun dinante nit ñu waaye wurus dëgg la mbaa xaalis dëgg la xam ne moom ñoo cee soppandiku nag doorawal batiku liggéey ca loolu ba tey baax na wala yajuusu dagan nag bil xuroobi ci ay marchandise lu mat a xam ngoog nag te daanaka mëneesu ko moytu léegi mbaa kenn xamatu ko mbaa kenn moytootu ko mooy lu ñu ko def ci marchandise maanaam mënees te réglé biti rek jox la ne la réglé nañ ko capital bi nangam la nga daal tàmbalee jaay su ko defee su ngeen réglé rek nga am nangam am nangam loolu dëkk bi ngay jàngi nii moo fi xew rawante na boo demee Côte d'Ivoire ca fa Sénégal yu bari defe naa sax du Sénégal yi dong daanaka looloo fi xew ku ñu jox biti ku ne dañu réglé rek bitim bi ne la te réglé nañ ko nangam moo ci nekk nga jàll rek liggéey bu ko defee bu ngeen réglé ñu seet la ñoo xam ne mooy capital ba bu génnee ngeen séddoo waaye loolu dañ koy aaye dam nañoo dem ba ne sax bu fekkoon ne ñëpp marché nañ ci jëflante ci marchandise kese nga xam ne amul sa xaalis bu ñuy jëflante deesu ko sañ ci ci marchandise ndax ak jàppandal dong la kon fañ ko fañ ko xamee woon ci cosaan rek mu wóor si xaalis kese ci lañ ko yemale des ko ko génne mu yokkoon dana nekk inna sala ndeem xew na ajiran di bàjj fii bay xaa ci jaayut marchandise yooyee nee na nag bu fekkee amuñu ko jëflante te yëguñu ko bu ko yoon yëgee moom te ba waa ji jaayee marchandise mi ba mu jeex dafa yem képp yem ci dolliwu ci daal dafa jaay rek marchandise ma yem ca te dañuy seet rek ku jaayee la nit marchandise mu toll noonu lu ñu ko war a fay ñu ne nangam ñu yëkkati loolu fay ko rek te wuñ ko jàpp xiraam ñu ne waaw bu fekkee deful noonu nag day def lu mu jaay rek jënd tegaat ci nag dafa jaay loolu ba mu jaar mu jëndaat marchandise tegaat loolu nag mooy wax alaa xiraabi mislihi ak ci xiraabum moroomam ci samani ci njëgg fekkee ni daal léegi bañ koy yëg fekk na moom mu jaayan loola ba jëndaat marchandise tegaat jaay di wér rek waaw dañ koy njëkk a fay tayut ku jaay marchandise moom nam tolloon ba àggal waaw door a seet la ca topp nag moom ñu jëflante ci ak moom ci xiraat boo xam normal na rek ci nañ ci ci nañ aadoo jëfe foofu xiraat rek fay ko ci noonu te bañ a seet ñoom ñoom ñaar dañ waxante woon walil xaamili ñeel na aju liggéey ja kiswatuhoo koddaayam la wa taxaamuhoo ak ñamam ba ida saafara ndem tukki na filmaani ci alal ja allasi ja nga xam ne laxoo ñeel na ko baalum solo waaw nee na bu la nit joxee alali xiraat bi ñu wër sa xaalis woowu nga dem di ca liggéeyi ba tax nga tukki tax laa génn dem di ca liggéey kon nee na boo bëggee sol ci ngay sol boo bëggee lekk ci ngay lekk te kenn du ko boole ci sa wàll loola kenn du ko tiire ci sa wàll moom kenn du ko compté waale waaye day fekk alal ji am solo nag fekk alal ji amul solo moom gis ko ci man wa innamaa yëkkatas yi naka dana sañ a wodd it fi safari ci tukki ba albahir bay aji sori nee na sax bu dee tukki bu sori nga jey sañ a wut ko daay te des ko des ko limaale ci sa wàll waaye bu fekkee du tukki boo xam ne soriwut te yeggut boole ji waaw kon moom loo ca woddoo boo ci génnee des koy boole ci sa wàll waaye des ko compté rek ci alal ji xiraat yi ñu ko génne ci sa wàll wala yaqtasimaan du ñu seddoo arref xa bénéfice ba xataa yanit da mbate keewoo soppi koo kee kee mooy wëru sa xaalis rësul maali capital ba nee na boo ko see jox wëru sa xaalis ne ko liggéey ci nag ñu seddoo bénéfice mbaa nga am nangam ci bénéfice ba mu xos tàmbali moom nee na jeex na doo mën a jekki-jekki ne ko bàyyi naa dama yàkkamti faw nga bàyyi ba mu jaay lu toll ni capital bi waaw li fekk jaay lu toll ni capital bi nga ko joxoon du ngeen mën a seddoo ak loolu wal musaaqaatu suuxatante ki wax suuxatante waaye mooy suuxat rek ñu fay la maanaam nit am ay taati garab yuy meññ nga di ko ko suuxatal nag bu ngeen àggee nga am ca meññ ak ma nangam waaw loolu lañ jolli ci suuxatante googu nee noonu dagal na fi usooli ci taati garab yi xalaamaa ci kaw la nga xam ne dara dayaa garamante nañu muy d'accord nañu rek xale yi ci moom mën ajji saa yi ci ay xaaj loolu gis mën naa am ay taati garab nga ñu ngeen juboo ci nga suuxatal ko ko su ngeen àggee ci meññat ko nag nga am ci nàngam ci ay xaaj xaaj yi mooy bu ñu nee ceer ba nga ci am bu ñu defee ñetti xaaj benn xaaj baax na bu ñu nee xaaj ba nga ci am nisif baax na bu ñu nee sudus juróom-benneel juróom-benn nga teg ci benn bu ci juboo rek baax na wal xamalu liggéey ba kulluhu léppam xalal musaaqa war na kañu suuxatanteel waaye mën nga ne rek xalal musaaqa war na koy suuxat ñu koy fay su ko defee nee na lépp lu aju ci liggéeyu suuxat ba rek nag moom mi nga xam ne mooy liggéey ñu koy fay moo ko war a def wala yastari tudd sart xale yi ci moom xamalal ab liggéey xayra xamalil musaaqaati burul jëfi suuxat ga waaw nee na nag bu la dee suuxatal ay garab nga war koy jox ci meññat ma doo ca sartaale beneen liggéey bokk te boobu ne ko da nga ko ciy boole léegi boo ci sartee ne ko da nga may suuxatal tool bi waaye dañuy sartaale nag bu bisub gaawoo da nga may jaayal li ca marché ba sama place ba mu dal jotewut ak suuxat gi dara loolu duñ ko ci boole mu yàqu illaa ma ndare wala xamala che in du caa génn jëf dara yoon si uxoo loolu dana ko sos fil xaayit ca tool ba tool ba mooy toogar ba wala jardin ba nee na itam doo ko sartal ne ko nangam amutoon ci tool bi te yaa ko fi def mel na nga ne ko amutoonub settar ne yaa fi defub settar ne ah loolu bi nga sartal ba tey mu yàqu illaa ma ndare loo xam ne laa baala déet solo déet solo loxo di ko ñeel min shaddil xavirati ci takk ngedd la takk ñag ba wa islaaxi dafirati ak defar mbalka ma waxi moom mbalka mi mit tamaxul maayi mooy tasewukaayu ndox ma nee na bu fekkee la nga ko sartal amul solo nag moom mënees na koo jéggale mel na nga ne ko da yaay defaraat ñag bi làkk bi yaa koy defaraat ba jur gi ci mën a duggati mbaa amoon na mbalka ba noppi wala amoon na seetal waaye day seen nga ne ko da nga koy tay ba du seenati wala moom kon baax na man xëyri an yoon si ci lu dul muy sos dinaa ahaa tabaxam ba xanaa bu fekkee mbalka ma dañ ko ne yaa ko yaay sos tabax bi mooy mbalka amu fi yaa fi def mbalka ah kooku moom du baax defaraat kay la ñu wax waaye boo ne ko yaa ko fi wut moom mu daal yàqu wa tadgiir góoral ga xale xaami ji war na aji liggéey ja góoral góoral garab yi maanaam bu dee tàndara moom dañuy jël ci tóortóori gu góor ga def ci gu jigéen gi loolu góoral googu na nee na moom mi suuxal ñu koy fay moo ko war a def loolu ci liggéeyam la bokk wa tanqiyatu manaqihi shajari ak setal naanukaayu garab yi mooy taati garab yi rek maanaam taati garab yi nga xam ne boo sottee ndox foofu la ndox mi war a ñiisee jàll ci reen yi foofu nee na bu taqee moo ko war a setal ba nga xam ne bu sottee te ndox rek mu jàll wa islaahu masqatil maa i ak defar rootukaayu ndox ma ñool xar bi te moo di ngës ma ngës baatu wolof la waaye mooy mooy baag bu mag mooy roosewukaay ba rek nee na roosewukaay bu mag ba bu fekkee dafa aajowoo defar ba tey kon moom loolu moo koy defar moom ñu liggéey ñu koy fay watam xiyatul xëy ni ak setal bëtu ndox ba bëtu ndox mooy lu mel ni siyaan bu fekkee siyaan dafa aajowoo raw dafa aajowoo sekkar ci ba ndox mi ball bu baax ndox mi génn bu baax ba tey loolu moom ñu liggéey ak wàllam la wajib fu zaalik ak lum room loolu lépp jaay sun aji dagan la ak ñu starata gu dee fi ko sart alal xaamil yi ci aji liggéey ja loolu nee na yëpp mënees naa wax kii liggéey ne ko loolu moom yaa koy def te du ci wàññi dara ndax moom ci liggéeyam la bokk wala tajoosu du dagan al musaqaatu suuxatante xalaa ixraaji ma ci sartu génn la nga xam ne fil xaayiti nekk na ca tool ba mën a dawaa bi ci ay daaba nee na doo ko wax ne ko nag buñ juboo ci nga suuxat damay jël saay daaba li ñu daan liggéeyee yow nga wut say daaba déedéet nee na faaw da nga koy bàyyi daaba yépp waaye doo ko wax ne ko damay génne daaba yi wamaa loo xam ne sax maata deena min xaa ci daaba yi fa xalaa rabbi yi war na boromam xalafu wutaatam yow borom tool bi sax nee na daaba yooyu bu ci benn daanoo bu ci benn faatoo dama war a wut bu ko wecc ndax way falal liggéey bi moom mi suuxat da cee teg nag ne wan a fa xatu dawaa bi dundub daaba ya wala ujaraay ak bàjj ya bàjj yi mooy empl emploi yi ci des yi nga xam ne ñoo fay liggéey alal xaami ji war na aji liggéey ja loolu nag xaw naa dis tuuti ndax dañ ne buñ ko fa bàyyi dee daaba yi itam moom moo leen di dundal wala daaba yi lekk moo koy wut su ko defee itam ñu ne ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ca tool ba itam moo leen di jox lekk moo leen di jox col la ñuy sol waaye jëmmi pay ga dëgg dëgg nag borom tool bee ko war a fay moom xanaa ndax koo xam ne moo ko luyal boppam koo xam ne moom moo ko emplo moo ko wutal bopp employé ko rek kooku moom moo koy fay ak payam ñoom fekkat nañu ay surga rek ci tool ba la wax ne moom moo leen jox lekk moo leen di jox ko daay pay nag moom di leen ko fay moom waaye ku wutal koo xam ne ci bopp moo la wut def la employé moom moo moo lay fayal boppam loolu na xam naa kon moom mi suuxat wala ci dugg war na koo tey lu baax a baax ndax bu génnee dundu ñooña seenu lekk ak seen koddaay war na ko seet bu baax ne moom ci moom lay génne kon la ci dugg lu ko jar daal moom baax na ci waxaale yi war na ko zarixatul bayaadi jiw ndéenéer ga al wasir ga aju néew ndéenéer mooy fu dara saxut waaw dafa wax ne bu dee amee digg boo xam ne saxul dara dara mënees na ko wax moom waaye ji liggéey ne ko fexeel ba saxal fa dara ndax mu bañ a def ak neen waaye mu ñëw rek wala ba sa ayat ay yulxaa bu dee feet zalika loolee lil xaamili ñel aji liggéey ja waxoo moom sax axal loxoo muy gën jaaya yoon nee na sax bi mënee bàyyi digg ba nga xam ne saxul dara bu fa saxalee dara mu far ko moom bu wér-wér te waroon tool dañ ko séddoo moom xanaa moom dara nekk fa moo fa def dara far ko féetewoo benn yoon rek loolu sax nee na moo gën a wóor waaye du tee nag ba tey bu fekkee digg ba yaatuwut des na ko jéggale bu ko séddoog noonu du aay bu digg ba yaatoon lay bëgg a wax wa in kaana ndem nekk na albayaadu ndeeneer ga kafiran di aji bari la ngay gis comme du dagan ay yadu xula mu dugg fii musaaqaati nax li ci suuxatan teg tàndarmaya yooyu digg ba moom bu ko see yaatu rek bu ko borom tool bi ne yaa fay yaa koy saxal dara ba noppi nag la la cee ñor dañ koy séddoo su boobaa moom du baax
wa ila an yakuna rek dafa nekk xadra suusi di kem ceer ba minal jamihi ci lépp fa aqal la topp lu ko yees li ñuy jàpp ni muy niiwaay bi daal mooy boo seetoon digg boobee ci tool bi lépp lépp ceer ba la cee tollool soo ko seetoon ci lépp daal ceer ba la cee tollool boo ko defoon ñetti xaaj benn xaaj la cee tollool loolu moom jéggale nañ mu ne ko yaa fay saxal dara ba noppi te dañ koy séddoo waaye bu digg ba gënee yaatu loolu rek ba noppi nga sartal ku ne ko yaa fay saxal dara te looloo séddoo du baax wa sharikatu bokkaale wala société fi sarxi ci mbay jaaisatun aju dagan la ida kaanat dem nekk na azarihatu jiwoo min huma tukkee ci ñoom ñaar jamihan boole seen wa rifatu bénéfice ba it bayna huma nekk seen diggante kaanat moo xam nekk na al ardu suuf sa li ahadihima ñeel kenn ci ñoom ñaar wal xamalatu liggéey ba al axari war na ko ca des awel xamal wala liggéey ba bayna huma nekk na seen diggante wakk tarayaate ñu luwee al ardu suuf sa aw kaanat wala suuf sa nekk bay na xuma seen diggante dama wax ne bokk bay bu ci ñor ngeen bokk dagan na ci kaw ni ñu ko waxee bu fekkee kenn ku ne xas na génne jiw moom nga xam ne ku ne joxe ngay jiw mën naa am suuf sa kenn ki moom ko ka ca des féetewoo liggéey ba nga xam ne ku ne joxe nga jiw ba noppi kenn ak moom suuf sa boole ci ka leen suuf sa moom du liggéey ka mo- ka amutoon suuf nag dañ bokk ji ci nag moom mooy liggéey loolu nangu nañ ko wala ni kenn ku ne joxee jiwu ñu boole na bokk liggéey bi ba noppi nag dem ñu suuf ba ñu dogal leen suuf ba amul suuf seen maam waaye daal suuf si moom ñoo ko bokk ñu bokk jiwu bi bokk ci tam liggéey ba yooyu yëpp moom xam nga ne lu ci nekk maandu na amma in kaana daal dem nekk na albadru jiwo min hindi ahadihima di bàyyi koo fa kenn ci ñoom ñaar wa min hindil aaxari te bàyyi koo fa na fa ka ca des al ardu suuf sa wal xamalatu liggéey ba alayhi war na ko aw alayhima wala war na ci ñoom ñaar ñëpp wa ref te bénéfice
moo ci ñoom ñaar ñëpp waree fi te bénéfice bi bay na xuma nekk na seen diggante la ñuy gis ñu dagan takk-takk bi mooy loolu saa yu ñu bëggee jàkkaarle jiw yeeg suuf si rek musiba am bu ñu bëggee kee joxe jiw kee joxe suuf moo xam ki joxe suuf si far mooy féetewoo liggéey ba boole ci wala ñoom ñaar ñoo koy bokk moom daal li li ñu aayal rek mooy bëgg a jàkkaarle jiw yi ak suuf si kee joxe jiw kee joxe suuf daal moom duñ ko nangu benn yoon xalaatuñ ko donte sax ki joxe suuf si da boole bay boole ca léegi ñu bokk ko di bay ñoo ci yemoo bu koy joxee suuf si kese koy joxee jiw rek moom jeex nañ dañ koy aaye walaw kaanaa donte nekkoon nañu ikk tarayaa di luwe al ardu suuf sa wala badru te jiw ya min hindi waahidin tukkee na fa kenn waxalal aaxari te war na ko ci des alxamalu liggéey ba jaasu kon mu dagan iva taqaarabat ndem jegente na xiima da zalika xaymay loole nee na yéen ñaa ñu bëgg a seq mbay bu fekkoon ne sax da ngeen a bokk suuf si moom nit ngeen bokk ko lée mbaa ñu dogal leen ko mbaa seen muy seen suuf maam kenn ak moom joxe ay jiwu kenn moom féetewoo liggéey bi rek moom xam ne kenn liggéey rek lay def amatu jiwu waaye kenn day joxe jiwu moom toog te bu tegu ñoree ñu séddoo kon neen loolu dara nekku ci bu fekkee gis nañ loolu war naa yelloo rek ndax jiwu moom it ci yooyu jamono xëy na kon dana war a baax itam ci ki nga xam ne amatu jiwu ñu bokk def noonu kon su boobaa dara nekku ci xanaa rek ndegam moom li mbirum mbay la ñu xam ne fi ne ni réew mi wax ni réew mi joxee maa ni réew mi jàppe surga day aay ndax dañ lay jox aw ji yoo xam ne buñ ci àggee da nga koy fayaat mbaa nga tegaat ci dara sax ba noppi nawetoo liggéeyal kooku nag ci tool bi xam ne loolu liñ aaye woon mooy lañ na woon alqardu maanaam bay lebal nit lu mel noonu mu lay joxaat lu mel noonu daa war a da loolu dong la war a doon léegi dañ caa boole njëriñ mooy li mu ko boroon da koy joxaat ba noppi nag mbaalu ko oofu sax ba noppi nawetoo ko liggéeyal nag ci tool bi lii tam rek mooy li mu koy jox moom du ko joxaat xam li mu koy jox moom mooy tawit mu nawetoo ko liggéeyal waaw léegi da koy jox ay jiw yi xam ne moom moom ak jiwam bu ko dee jaay bu ko neexee jaay ko bu ko neexee bay bu ko bayee it moom moo ko moom bu baaxee baaxal ko bu yàqu yàqu ko moom daal nawetoo ko liggéeyal rek moom mooy payam moom la ko fay jiw yi loolu daal moom moo tax mu baax wala ñun xam ne dootul teewal ak pay fii kiraay ardan ci lu yaay sub suuf xëy na moo nekk suñu suñu yoomu xam la am trois njëkk dee fi commandal nee na boo lu yaay suuf du koo bay waaye muy suuf soo xam ne leen mu teggee teggee yi mooy taw bi da koy jël ba du tooy ba ñu koy ji su fekkee fi sa léeg-léeg mu def noonu kon duñ fay fi saasa dañu bàyyi ba nga xam ne tey na ba mu wér ne mënees naa ji xam ne moom liñ ci bëgg ci mbay dina mën a am ñu door a fay wa man ibtaaxa ku jënd tamaratan meññet fii lu uusi shajari ci bopp garab yi ci kaw garab yi rek fa ujiixa te jiyaaleef ko fa ujiixa te jiyaaleef ko bi baradin ci tawub ñaar aw jaraaj wala njéeréer aw jalis wala play lay ni ki nees aw xooñ yi wala njuumoom kon ñu seet fay ujiixa ndeem jiyaaleef na abdul suuf si kem ci yar ba fa ak sari topp lu ko ëpp ñu defe kon si peef xale mu sa ñaalis aji jënd ja xajul taalika kem loolee mën a samani ci njëgg nee na boo jëndee meññet moo xam ne danga ko jëm ko jënd nii te fekk na kenn sàkkagu ko sàkkagu ko mooy ma nga ca garab ga ko meññ te fekkutoo mu wow koo jënd rek noonu ci bu ñoree ci tawaay bi kon bu fekkee yàlla teg na ci jiyee na ki taw bi wéeru wala ay njëréer wala nees bi wàcc wala yu demee noonu waaw lu mu ci yàq kon dañuy seet bu fekkee la ci yàq mat na ceer ba mbaa mu ëpp ko daañu la wàññi lu toll noonu ci njëgg waaw nit ki bu fekkoon ne ceer ba moo ci yàqu dañuy seet njëgg nga war a nga fay ñu wàññi la benn ceer ba mu it bu ko ëppee noonu wala loo xam ne naq sa yées na xale suuf si wala suuf si ba fa mu ne ma butaax yi kon tukkee na ci aji jënd ja bu fekkee am na lu ci yàqu waaye matul ceer bu sax nag kon moom mu jëndoon moom ñu rek moom ñu rek waaye des ko romb si la wala jaay xata déet jiyee fi zarxi mi nekk ci mbay mbay nag lu mel ne dugub ak mboq yooyu nga xam ne moom mbay na nii kooku moom bu am jiyee ndax bala ñu ko sañ jaay daa ñor ba wow bu fekk ñëwet kenn du ko mën a jaay te bu ko sañoo ñor koo jaay moom du jëm rek mooy seet bu ci bu ci xew rek moom la ci xewal kii jaay moom génn na ci wala fii naa du jaay jëm ci loo xam ne ustur yi jëndeef na ko baax da am yebbi fi ci gannaaw ba ngooyee nekk tamaar yi ci meññe di meñ meñ boobu la waxoon léegi ni ma ko waxee woon day nekk meñam mu taw nekk ci ko garab ko waaye bu fekkee daa dem bu wooyee ñu doon la koo jaay kooku gannaaw bu ci war a xëyee itam dañuy jàpp ne yow jëndkat bi rek yaay ñàkk waaye lu mu bari bari kenn lu ko rombul ne ba tey doxu def na sippi sippi moo wàññi jaay xatul bu xooli jiw lu jëm yi wa in xàllal ak donte néew na nee na ñi nga xam ne seen reen day nekk fi suuf bu la ko jaayee noonu ci kaw nga war koo buddi ni kii ñu jaay la rek togg rek ñam bi wala togg rek karoot wala togg rek yow nga xam na nga koy buddi kooku moom soo ko buddee lépp lu ci yàqu rek dañ la ko romb sa njëgg moom néew néew waaw kooku moom lu ci yàqu rek ñu romb si la ko bokk te nga jëm dàmb ak maango nag wala yooyu moom kooku moom bu ko si jëm rek moom nga ko lu ci xew rek yaa koy féetewoo wax la waxees na ne laa yoo doxu dee fi sippi laa xam ne suñu si mbare kenn ceer ba am na ñu ko bëgg a yemale meññal wax ne moo nag la ci yàqu bu wutul ceer bi kenn du ko tam la ko wàññi ci njëg yi waaye wax ji gën a war moom mooy lim di ko wax lim ñoo ñoo ñu wàññi la ko wa man ahra koo xam ne yaral na yaral maye lay doon waaye dañ koy jëfandikoo ni nag ci fi ñu koy jëfandikoo ci fiq ci tàngal maye ku ku yaral famara na xalaatin meññatum ay tàndarma li rajulin ñeeluwaay min jinaanihi ci ay tànkaram fala bu asakun ayat an yashtariha mu jëndaat ko jëndaat ko mooy ku mel ne lépp ko lépp ko rek isa asxat ndéem wicc wicc nañu wicc mooy ñu tàmbalee ñor lu mel nañ mel bu fir si xaaj seen matale tamran mbir mu mu tàndarma yow ati yi dana ko jox zalika loolee indal jazaasi fa góob ko in kaana dem nekk na fii xaaj ñoom xamsatu awsaqin lañ los ko fa aqal lu topp lu ko yees dafa wax ne boo waxee kenn ne ko garabu tàndarma gee dem baat garab yene mu dig lim nga ne ko lu ci ñor ren rek yow laa ko may ñu dem nag tàndarma yaa ngi ko mayoon seen meñam ñu ko ñor kon nee na mën nga ko jënd jënd gi ñu wax rek mooy lépp moo dañu ron tàndarma ba tolloole ba xam daal fi mu toll ni mu toll ci tooyaay kat la nekk ñu nattale nag maanaam ñu tolloo nag mu baam ko ci tooyaay la nekk te mu ci kaw garab gi daañu la may ñu nattale rek ne moom dëgg de moom boobu dina war a mat nangam nangam jaay ñu ko tolloo la ci boowoon rek yaa nga sàkk ko woy borom tool bi te jàpp ne amel nga waa ji nga mayoon garab yi lu toll noonu moom dafa nga defa waa jaay li fi nekk rek nga koy joxaat tàndarma nga xam ne bis boo tolloo ci boobu rek jox koy tolloo tàndarma joowu loolu nag ak jàppandal dong la ndax xam nga ne lañ aaye woon mooy jaay lu tey jëndee def nañ ko te it lañ sartoon ci lu mel noonu bu yemoonte xam nga ne sorante na ndax gis nga ne dama tollale képp ne lu nekk ci kaw bu bu bu ñoree ba nangam lay toll nga dama koy jàppale la waaye xamuñu sax ci dëgg-dëgg lu war a toll te la nga tollal rek moo ngi ko fay moo tax li ñu am dañ ko yemale bu fekkee ne daal dafa tolloo juróom benn bëri nga jëm suuf li ñuy maye boobu jàpp ndal waaye su ko ëppee moom desu ko woon moo tax mu naa in kaana fiha xamsatu awsuqin fa aqalu moo tax mu teg ci laa yajuusu laban shiraaru akthara jënd lu ëpp min xamsati awsuqin juróom wasku ilaa bin xëy dara ci kee wal xarbi ak marchandise mais ñoom nag su fekkee ëpp na juróom benn bëri nga wax kon doo ko sa doo ko mën a jënd lu may fay ko wurus ba xaalis wala marchandise rek waaye doo ko mën a lekk ni ñu waxoon léegi moom ci kaw rek nga dee boo fay koy toll noonu
baaban li ab bunt la